boutique solution ñoo leen di may seen émission Taku Taku Show dellu siwaat ci kattanu yàlla ci seen télévision Walfadjri la voix des sans voix waaye également ci seen site bile di solution TV ni ñu koy amalee lundi ba jeudi ci bu 17h jotee ñu fas yéene ànd ak yéen di 1 heure 30 minutes ñu nuy leen ci suñuy différentes plateformes digitales waaye di ziar également ñi euh, seet ñi seetaan ñu dekkaat nag tey ci talaata ji nañ ko ubbee seen rubrique lu ay di njàmbat Omar euh, Gueye daal di seq waxtaan ak bay Mor Sarr bokk ci Pastef Bergamo fële ca diwaanu seq ak waxtaan bu nu ca noppee jàll ci ak Jour ànd ci ak ma jigéen Diop Dieng Sall moom it la mu ñu indil gannaaw actualité bi nga xamante ni nag lu nee nga ca dinañu ànd ak moom ma jigéen Diop bu nu ca noppee rek jàll ci victime du net Baye Assane Mesere mooy ki koy amal ñu yëkkati bile jotaay asalaamaaleykum. Omar maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay ziar bu baax. di la nuyu. di la ziar di la ñaanal jàmm semis bi rafet na ah, merci macha allah waaw ah, kase na aussi <laughs> ci kaw ci suuf ah, di la nuyu bu baax <laughs> di nuyu saa looy rek <laughs> di la nuyu bu baax di la di la ñaanal jàmm di ñaanal suñu borom yokk ñu wér di ziar sëñ bi bu baax taalibe seen Sidi mu sëriñ Abdoul Ahad Mbacke ñu ngi koy ziar di ko ñaanal suñu borom mhm. yàggal ko ko fii mu gën a wér di nuyu maa jigéen madame Dieng moom tamit taalibe sëñ bi la ñu koy nuyu bu baax ndaxte ba mu bëggee wàllu <laughs> sëñ bi la seeti ñu koy nuyu <laughs> boobu kuyee teg la woon kuy ko saa door moo teg la woon di ko nuyu bu baax di nuyu Baye Mor Sarr di koy ba Bergamo Italie euh, bokk ci Pastef diaspora euh, nekk candidat aussi ci élection législative yi dinañ ci waxtaan ak candidat la candidature waa noonu la di la nuyu bu baax di la ziar. Mhm. waaw di nuyu waa diaspora yëpp moom bari nañ ci cibre suivre di ci nuyu sama benn xarit bu baax Abbas Seck ma nga Italie nga xam naa ni di ngeen xamante moom tamit Pastef la bokk ah, moom Pastef la bokk ñu ngi koy noo doon taal bi Serigne Touba di nuyu Cheikh Sambaka ci Géejawaay ak sëñ si di tey bu ñaas waa Kër Masaar yëpp ñu ngi leen nuyu waa Alaaji Paate mais aussi tamit euh, tey euh, yow ak tiis suñu hmm. benn xaritu euh, animateur wala technicien ku polyvalent Léon Paul Mendy ñu ko doon wax booy boy te mu nekkoon réew Rewmi FM waaw doom sax ci école bi den rek Walfadjri loolu jàngee bi mu mujjee daje yàggul dafa noppalu tey quoi waaw dafa noppalu ñoo ko nekk réew mi fa ko fekkoon hmm. fa la ko bàyyi aussi mu doon koo xam ne corridor yi Mbagnick di def voix yi nga doon dégg ñu def portrait yi ak publicité yi moo ko doon def waaw ah, doon euh, ku polyvalent nag ku polyvalent ku mën a liggéey ku mën a daal taxawu liggéeykat parce que boo doonee gan ci rajo boo fekkee ku la expérience ak yooyu da lay gunge ci lu bari te mais képp animateur bu manqué moo doon remplacer technicien la même chose sànq la mu ko Omzo wax mi ngi dëkk fii ci ginnaaw terrain xaar yàlla bi du ñàkk ni rek euh, bu ñibbisee buñ ko indee dinañ fa dem mais daal ñu ngi koy jaale waa réew mi yëpp di ko jaale njabootam di ko jaale mbañik ak njabootam yëpp di ko mettitlu parce que suñ xarit la woon mhm. koo xam ne dañ doon séddoo lu bari am na voix yi jaar Zik FM sax ak Omar voix boobu ngay dégg moom moo ko ah, def waaw ah, ku généreux ci liggéeyam ñu koy ñaanal rek euh, suñu borom jéggal ko Léon Paul Mendy booy booy amin yaa rabbi yal na ko mhm. yàlla yërëm ñu nuyu ko moom ma jigéen Diop Dieng Sall mel na ni yow yaa ngi ci octobre rose bi a ah, ah, ajaratu nag euh, weer wee ko waral. Mhm. Ah, vraiment ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. suba la euh, indil na <laughs> tey ñu indil nga waroon ma indil baron ko doon indil baron jël <laughs> tey la. macha allah euh, lépp benn la. ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. di la mhm. sargal di la ñaanal nag jàmm ju sax dàkk. ñu ko ñaanal mboolem téléspectateur ak internet yu ñuy suivre dem ba diwaanu Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar benn aéroport. Mhm. ñu leen ziar leen ñaanal leen. am jàmm ñaanal ko itam sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahat Mbacke yàlla suñ borom yàggal ko fi loolu mu ànd ak wér defal ko jàmm defal ko njaboot gi wasaare ko ci mhm. biir këram te ko ñaanal mboolem xalifi ci biir réew mi yëpp mhm. di nuyu Omar Bun Xataab di ko ziar kay fay di nuyu suñu gan gi itam di ko dalal ak jàmm maa ngi nuyu <laughs> Ndiogou Meng. sama xarit waaw sama xarit la moom wax dëgg yàlla dafa yàgg nekk sama. xarit nag des fois wax de ngaa dem ci sëñ Sidi nag comme giita ngaa si jeex na nag. <laughs> mi ngi noonu ajaratu si kanam tuuti nag daañu ànd ak yéen fi mu toll nii gars yi ñuy convoqué jamono ji bari na lool. bañ ci euh, dégg turu Cheikh Yérim Seck Bougane Gueye Dany ak euh, ñi nga xam ne jotagum nañ leen a téye ku ci mel ni Kader ak jéeg yi nga xam ne ni euh, doon nañ ko déglu ci suba daan ci ñëw ci kanam te mu gën a yaatoo incha allah. incha allah ci kanam tuuti lay doon El Hadj Ndiogou maa ngi lay nuyu di la ziar taalibe sëñ Sidi xaritu sëriñ Sidi ñu ngi koy ziar moom bu baax a baax. Adja ñu ngi lay fay ñu ngi am ci yow mbégte ak kontante mhm. di la nuyu bu baax di la ziar di dem ba Touba nuyu xalif général des mourides sëñ Muntaxa di ko ñaanal mu yàgg fi tànd ak waaye di nuyu di ziar sunu sëriñ sunu xarit mhm. sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad Mbàkke ñu koy ñaanal Mbàkke mu yàgg fi lool tànd ak wër di ko ziar wér nuyu baax sëriñ Xaadim ne ca kër ga ak njaboot ga yëpp ñu ngi leen nuyu di leen ñaanal jàmm mhm. nuyu nañ sëñ Abdou Karim Mbàkke borom Makarimul Axlaaq nuyu kilifa diine yeewoo ci biir réew mi yëpp ñu ngi leen di nuyu nuyu nañ maman Dieynaba Fall kooku sunu maman waaye ñi ngi nuyu monsieur Lo kooku sunu tonton la ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal jàmm di nuyu Umar bun Xataab macha allah di am ci moom mbégte te te l'homme de Kër Massar borom alaaji Paate ñi ngi nuyu bu baax sunu euh, waa ji nga xam ni ma nga bàyyi moor jóge ba Bergamo ñu ngi nuyu di nuyu waa Italie yëpp nuyu nañ sunu waaje Assane Ndiaye ma nga ca Italie waaye tamit Ibrahima Ndiaye ma nga ca Italie donc di njaayeen ya nga xamante ne bi ñoo collaboré ak boutique solution nekk foofu ca Italie ñu ngi leen di nuyu de passage di leen ñaanal jàmm di nuyu bu baax ma jigéen di am ci ma mbégte kontaan te sukran Adja ñu ngi lay delloo lengay <laughs> sukran d'accord macha allah <laughs> Baye Mor ñu ngi lay nuyu di la ziar euh, di la dalal jàmm bismillahi rahmaani rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñoo ngi nuyu soxna ma jigéen ajaratu béti eh, sanjoogu alaaji sanjoogu mbeng Seydina Omar ibnu Xattaab ak techniciens yi ci gannaaw ba eh, ne ci xarala gi ba li ñuy wax ak li ñuy lumière bi yëpp di àgg ci nit ñi ni ni mu gën a baaxee mhm. waaye di nuyu waa Mbuur gi ma jóge ñëw fii nuyu waa diaspora bi yëpp rawatina Italie rawatina Pastef eh, section Bergamo bi nga xam ne fa bokk mhm. merci incha allah mi ngi noonu ñu dugg nag tey le premier octobre ñu dugg ci octobre rose ñuy bàyyi xel ñi nga xamante ni am nañu cancer du sein wala cancer du col de l'utérus xam ngeen bu octobre jotee ay dépistage gratuit gars yi dañuy gën di sensibiliser ñi nga xamante ni ñu ngeeg maladie bi yàlla na leen yàlla wéral ñi ci ñàkk seen bakkan aussi sunu yàlla sunu borom ma may seen i mbokk muñ nañu dem dépister bu nu def nii beti wala keneen am na ñoo xam nag dañoo ragal waaye bu weer wi jotee euh, dépistage gratuit day am kon dem leen ngeen xool seen wér gi yaram loolu da ciy baax ñu jëli lu ay di njàmbat Omar di la ziar bu baax ajaratu di nuyu sunu gan bay Mor Sarr Pastef euh, diaspora Bergamo Italie di la nuyu bu baax euh, di la ziar waaw euh, tey nag nga ñëw fii nga ne la candidat à la candidature bu Pastef ci élection législative yi pourquoi nekko candidat diaspora ñëw dugg ci liste national bëgg lu yomb la wala par que national moom dégg naa yóbbaale ma la rek. comme Sonko ko jiite moom dégg naa day yóbbaale géew ñu bari. mais pour bien fair la politique nag ñafe da ngay dem à la base tey jii quelqu'un de la diaspora doonoo soxla woon kat de ñu ne bay Mor mi ngi candidaté ci diaspora bi pourquoi nga def choix wu dugg ci liste national bi. waaw jërëjëf Seydina Omar xam naa euh, di la jaal rek sa mbokk moomu di wax yal na ko yàlla yërëm yal na suñu borom xaare ko aljanna yal na dee di noflaayam amiin amiin di ma di leen ko massawu yéen ñëpp di wax ne àddina ngoog ñun ñëpp loolu la ñuy xaar yal na ñu fekk ci lu yàlla gërëm li nga wax nag am na solo lan moo tax bokkuma ci euh, coordination bu Italie mhm. waa dafa fekk ne ma dafa am sama yeneen collègue yoo xam ne candidat wu nañu ci liste nationale bi ma bàyyee leen ko peut-être man amoon naa possibilité ñëw si bii Mm-hmm. waaye aussi am ñeneen groupe yoo xamante ne ni ñoo booloo créer benn mbooloo lu yàgg ñu bëgg Baye Mor bokk ci député yi bi liy xewee rek dañu dañu dañu booloo di di dox ci loolu. Mm-hmm. def ci nag ay liggéey yu mucc ayib. Mm-hmm. Eh, groupe boobu ci yenn ñenn ci ñoom aussi ñoo ma proposé que pourquoi du dem liste national eh, fi may wax ak yow nii sax man ñëw naa en personne déposé sama li euh, sama candidature ci liste national mais teewul. Euh, coordination Italie ci boppam bi muy proposé ay nit ñoo xam ne dañoo déposé ñoom ci liste nationale bi dañ ma ci boolewaat. Mhm. ça veut dire que dama gis ne benn yéene la boo xam ne nit ñu baree bari daal am nañ yéene ma dem assemblée nationale peut-être gis nañ ne am naa fa place wala mën naa fa wax luy jëriñ xeet bi. ah mais ña nekk diaspora mu ñu loon xajal rek. pardon bañ fa nekk di buuxante quoi. waaw vraiment loolu la xaw a niroog nag. loolu la xaw a niroog maanaam nekk bañ fa nekk di buuxante te it rang ba dafa metti woon te boo seetee Europe du Sud ñetti député rek la ñu may benn Espagne ñaar Italie mhm. su nit ñi bare donc euh, jàpp naa ne daal bàyyee leen ko te ñëw fii mën na am ma am fa beneen possibilité boo xam ne ñoom it dinañ am seen sens foofu. mais consensus lu tax amul waxtaanee ko ba juboo ci ñaar ñi. am na am na am na section yu mu am. bi ñu demee ci coordination bi consensus bi mun tam dañu def vote yi defe naa bi ñu defee vote yi non pas defe naa wóor na ma nekkuma fa woon nag waaye wóor na ma dañu mujjee ciy vote ñi nga xam ne ñoom la yàlla dogal ñooñu génn ñu boole leen ci coordination bu Italie. kon démocratiquement lu tax nga bëgg doon député. Euh, bi ci njëkk de mooy dama gis ne jamono bi jafe-jafe yi am muy li fi jaar ci Sénégal Ousmane Sonko jógee depuis ci aji saar ja ba tey jii. Mhm. dam toujours damay génnee samay vocal di wax li nga xam ne moom laa xalaat ak sama xam-xam. Mhm. nit ñi apprécier ko lool. ñooñu nag ñoo ma njëkk a proposé loolu bokk na ci ku ñëw Akon Ñas ci moom laa njëkk a déggee mu ne Mor mi war na doon dé mën na doon député dem assemblée mhm. ma jàppee ko rek lu kii après nag ñeneen topp ci bëgguma lim ñëpp waaye ku ci ne mhm. maa ngi lay remercier ci xalaat boobu nga am ci man looloo ma gën a jox courage ma jàpp ne loolu war na mën a nekk ma nit bëgg bëgg commencé maa dugg mhm. maanaam défendre Ousmane Sonko muy défendre Sénégalais yi ma ànd ak moom ci loolu Ousmane Sonko soxlawul ko defar parce que amagul problème pour loolu tax problème boobu laa am manit nag pour sénégalais ne ci jàmm ma gis ne ñi fi nekk ñëpp moom laa gën yaakaar ne mën na ko mhm. donte la ku ne xëcc nga ne jàmmi sénégalais yi moo la tax a jóg mhm. waaye man sama xel ki ma jox mooy moom mhm. mais choix bi Ousmane Sonko def noo ko gisee ci ci kañ lim soo bëri na ci ni Pastef rek lañuy àndal dem duñ dem ak coalition te présidentielle yu ñu weesu ñu àndoon ak Diomaye président am na ñu ne soit bu risque la parce que Sénégal yàgg nañ dem élection waaye dem ak sa jubur wala yow kase rek loolu des fois risque la quoi. ànd ci rek laay def waaye nag euh, mën naa ci indi sama xalaat. gis naa ne lu baree bari war na mën a tax ñu dem ñun kenn. lu tax que àndoon nañu ay nit mujj mu mujj fu ñu neexul donte la la ñu taxoon a jóg amoon nañ ko ndax bi ñuy ànd ak ñoom peut-être yaakaaroon nañ ne dinañ war a dina ko koroo dana am suñu diggante wala tàqali ko lu mu yàgg-yàgg. loolu am na mais li ñu bëggoon mooy xañ Macky Sall nombre député yu bari ci assemblée nationale bu ñu seetaanoon dem ñun kenn tuuti la ñuy am. te boobaa Macky dina am lu bëri mën na fi indi loi yoo xam ne dina tax mu continuer toog ci réew mi ba tey peut-être loolu taxoon parti bi ne nañ ànd ak ñoom léegi nag suñu ànd ak ñoom gis ci leneen loo xam ne neexuñu gannaaw gi parce que ñi ñu àndagoon ak dem nañ di voté te ñoom xoolatuñ li passé woon yaakaar naa bi yoon dem ak suñu bopp loolu mooy benn bi bi des mooy euh, xar day weesu mbote yaakaar na ak jot na sëkk nag ñu war a mën a dem ak suñu bopp te yaakaar ni dinañ am suñu njort wala lu ko raw mm-hmm. balaa may jox saa lu tax ñu ne choix bu risque la dañoo gis ne jamono gi ngeen jàpp ni dangeen ngeen demal seen bopp ñi ngeen ko séqal ñoom ñi ngi dajaloo ba ñee jàpp ni sax président Macky Sall mooy day ñibbisiwaat jiite ab lis ah gars ah Macky de du mbocc maanaam ab ngonk la te min na géew géopolitique bi. dëgg la gars yi ne nag risque boobu ngeen jël. waaw xam nga politique dafa am ak ngone ak waxambaane ak ak màggat. moo hmm. demee bay màggat nag li ci bëri doo ko yëg. da dem ba nit ñi bàyyi la te doo yëg ne bàyyi na la ñi fi toog ñëpp ñu ci bëri ci ñoom nit ñi banañ leen waaye yëguñ ko nit boo nekkee ci réew mënoo am sax parrainage pour jàll nekk ci présidentielle bi yaakaar naa war nga xam sa bopp mais lu jafe la ci politicien xam boppam mhm. wolof day wax ne suqanoot amul xetam mais booloo gi ñu booloo man li ma jàpp rek signal bu faible lay wane nag ci ñoom parce que bu ñu dëgëroon dinañ saaroo kenn ku ne wóolu sa bopp mhm. mooy ragal nañ nag ah mais mbooloo da ngeen ko du ko da ngeen ko def mu jigleen moo tax ñoom ñu jaaraan que ngeen di def yeewu wàllu fii la ñu fekk ñu gis ni loolu doxoon la parce que Sénégal pour la première fois mu am ñi jiite ak ñi toftalu seen ginnaaw di diirante mbagg ci assemblée nationale. waaw mbooloo moom mooy doole la olof di wax. Ah. waaye du yëpp nag léeg-léeg am mbooloo moo xamante doole ja muy amit du tax mu jëriñ leen dara. Mhm. waaw yenn saa yi mbooloo mooy doole dëgg la. lu ñëpp d'accord nañ ci waaye yenn saa yi mboo am na mbooloo parce que mbooloo li koy lal ba mu doon doole day fekk n du ci am. Mhm. ñoom ñi ànd ñëpp dañuy naxante. comment ah man de gëm naa lool parce que am na ñu ànd ko nax ñu kon loolu seen jikko la dañ koy defaat. Mhm. macha allah waxtaan wi am na solo li mu wax dëgg la de parce que euh, mbooloo bi dafa wane ni dañoo faible rek bu ñëwee ba ay Idrissa Seck nangoo dajale kii mooy wane ni ñoo ñëpp léegi dañoo yëg ni amatuñu doole moo tax ñu <laughs> li li wax c'est extraordinaire. dañoo faible mun na nekk leneen tamit. non non du leneen dañoo faible mun na bañ a nekk amuñu doole waaye ki ñu jàkkaar loolu moo am doole. <laughs> waaw waaw moo tax boo sax ci la jëg seen faiblesse. loolu mooy wax ji macha allah Baye li nga wax am na solo <laughs> Baye il faut bu nekk député il faut que gars yi yóbbu ko assemblée parce que euh, lii am na solo Baye léegi man euh, li nga xamante ni bi euh, moom laa doon moom laa doon wax fi mu toll nii Omar mi ngi ñëw ak yow ci li nga xamante ni mooy. Euh, Pastef li mu dem ak euh, boppam man jàpp naa ni sax te mu toog boppam parce que am na ñu nekkoon ci coalition Diomaye président yëpp euh, ànd nañu ak ñoom du dëkk léegi yéen fi mu toll nii élection yi kii mi ngi doon wax ne Macky Sall Macky Sall mi nga xamante ni bii nee nañ war naa ñëw dooleeku ci li nga xamante ni Macky moom yaa yaakaar ngeen ni yéen ni ngeen ko war a bàyyi muy wëndeelu di jéem a politique ba nëgë ni est-ce que yaakaaroon ni Pastef war nañu jéem a tamit lijjanti euh, mbirum Macky Sall parce que defe naa ni dañ koo bàyyi liberté ba mu ëpp ba muy tal naan day politique fi mu toll nii mais est-ce que Macky Sall la wax loolu man jàpp naa ne politiciens ñooy dalal xelu ñu àndal ak jéem leen koo naxee ndax ñu ñëw rek wala ñu bañ a daw li ñu desee kës néew xam nga boo ne leen Macky Sall dina ñëw am na ñoo xam bu ñu ko déggee dinañ fa toogaat di xaar ñaata yoon lañ ñuy wax ay parti politique wala ka ko naan dina ñëw léegi mu mat juróom benn at kenn gisu ko fi ko wax pardon seen mandataire coalition wax lee ñu ñu ko jage nga wax bu ne pour ñu gëm ko dañ koy jox ki ko war a wax mais day fekk ay fen la day fekk ne waaw gëmu ni ñoo ko ki ko war a wax ba mu doon dëgg. waaw <coughs> gëmoo lool. ko de. Hmm. gëmu ne Macky dina ñëwaat dañ leen koy naxee ñoom rek ngir ñu bañ a génn gétt gi. léegi foofu nga xamante ne fi mooy ca bitim réew gis nañ taxawaay bi nga xamante ne bi diaspora am na ko ci li nga xamante ne bi mooy euh, projet bi ñu gis ni diaspora bi ci seen jëmmi bopp dañ cee participer bu baax a baax a baax a baax participer nañ ci seen doole seen temps seen alal seen lépp participer nañ ko mais diaspora boobu aussi tamit am lu bari loo xamante ne bi soxla woon na ko ci état yi nga xamante ne bi mooy yi est-ce que ba nëga ni seeni soxla yooyu mi ngi nekk yéen a ngi ciy dox ngir ñi nga xamante ne bi ñoo ñi falu taxaw ci ba nëga ni walla fan la yëf yi toll ci mel nii këyit yeeg et cetera ak affaire yooyu parce que jafe daan na jafe quoi daan na am jafe-jafe consulat yàgg nañ ñu coow ci kii bi am na problème et cetera fu yëf yooyu toll ci jamono ji ñu toll nii six mois après. waaw six mois après nag xam naa liñ ci mën a def du bari yëg naa ne rek Amadou Serif Diouf mi nga xam ne moom dañ ko xamoon lu jiitu ñu koy nommé liñ ko jox. Mhm. muy dem ci diaspora bi am na lu mu réglé lu mel ni mbiri passeport yi. Mhm. te ku ko xam la xam naa ne mu ngi ci lim war a def. Mhm. Euh, li ci des nag am na ci yoo xamante ne nii moom du day weesu loxol Amadou Chérif Diouf état bi ci boppam moo ciy geesu. waaye comme Sénégal mel na réew la te ñu ko jiitee ñëpp njabootam lañ. man jàpp naa ne bu ñuy gis mbënn meeg hôpitaux yi. ak yeneen yi nga xam ne moo gën a nekk fii. Euh, niñ commencé pour l'instant dafa mel dafa am Sénégalais yu gën a nekk ci urgent looloo tax ñun diaspora bi nag li ñu soxloon yu ci bëri ma fa ba léegi am na ci yàmbat yoo xam ne dama koy dégg rek placé wu ma sax pour wax ko mm-hmm. waaye ñoom bis bu ñu jógee ba war ko lijjanti ñi nga xam ne ñoo yor lool daañu leen gën a leeral li nga xam ne mooy jafe-jafe diaspora yi mm-hmm. waaye jafe-jafe diaspora bi li tax ñu ñu bokk ak doole li ci def suñu alal du jafe-jafe bi ñu am bitim réew kese peut-être naa am ñi dem te eggaguñ ak demin bi moom ci jàmbat yi la bokk waaye ñi fa yegg ba placé ba am seen liggéey ba mën a cotiser ak di xeex guddeeg bëccëg mm. seen jàmbat mooy Sénégal mm. li ma waxoon sànq waaw seen jàmbal mooy Sénégal ne ci jàmm ah. problème bi Ousmane Sonko am ba xam moom ñi mu àndal gor yépp xam ne mm. bu ñu bàyyee ne Sénégal day suux ñu ne loolu rek lañ am ci côté boobu lañ mën a xeexee ñu dajaloo di leen jàppale mm-hmm. macha allah wax na wax ju am solo. Mm. maanaam non non non mën nga ñëw parce que li mu wax dama doon contribuer rek. Ah, parce que li nga li nga wax ne. ñuy jóg di dem waaye ña dem ba toog moom seen xel a ngi ci biir réew mi xool nu ñu mën a def pour réew mi. baaxaat loolu dafa am solo mais loolu tamit diaspora xam nga Italie mm-hmm. immigration moo ko defar moom. Mm-hmm. parce que xam nañ ko jaar nañ ci fi ñu jaar te yéen ngeen nekk ak ñoom xam leen. fi ñu jaar ba développé yéen xanaa nag war ngeen a mën a nànd yëf yi yéen ba xool nu ngeen di contribuer bu baax a baax ci réew mi ba réew mi mën a suqaliku voté ngeen ba li nga xamante ne bi moom lañ bëggoon am nañ ko léegi diaspora lan mooy doon taxawaayam parce que seen force boobu pour man war a tas quoi li ngeen def ba taxawal ngu ba nguur gi taxaw war ngeen a mën a participer bu baax a baax ci développement ak yëf yi. waaw loolu moom dëgg la hmm, mais Italie fi ñu jaar nag ñoom ba ba ba taxaw gannaaw deuxième guerre mondiale bi hmm. daf ca bokk seen pays yi leen wër hmm. li déggoon naa benn xale bu jigéen burkinabé na mu ko waxee woon sax xaw ma ko ci français xam nga man jànguma français lu bari mu ne mënoo mënoo développé dañuy développé pour nga développé wu foog ñëpp a koy def. Sénégal kese mun a génn ci pays yu ko wër moom kenn mu a yuxeet jóg taxaw. na bu ba xër ñett waaw moom kenn lu koy jafe lay doon waa danay booloo def ko. Ah. Italie nag ña ko wër ñoo ànd dimbale ko boo gisee Italie bi deuxième guerre mondiale bi doog a jeex ñoo ñu gënoon ñàkk. waaw dañ daan lekk benn bool amuñu lu ñu kii li ñu liggéey mais dañu nangoon lu bari nag mm-hmm. usines yi nga xam ne ñi am doole bëgguñ ko yëpp ñoom dañ ko nangoon accepté mm-hmm. lu mel ni fonderia yi gomme plastique yi nga xam ne boo ci yàggee da lay indil cancer dañ ko accepté woon ba mën a suqali seen réew mm-hmm. waaye usine la woon kon ñun tamit li ñu war def rek mooy participer si ci développement réew mi mooy ñu njëkkee ay usine usine dafa bokk ci lii dindi euh, désoccupation ci italien euh, désoccupato maanaam nit ko amul liggéey usine dafa bokk ci li gën a gaaw jox liggéey ay xale par exemple benn oto rek boo seetloo ñi ci liggéey day xaw a jege usines yi ci participe yëpp nombre personnes yi ci laal oto doog a taxaw dina jege téeméeri téemé téeméeri téeméeri juróomi téeméeri doomu aadama hmm? da koy ëpp sax si parce que panu kese usine bi koy defar day jël lu bari nga doog a ñëw ci boulon yi verre yi plastique bi banc yi moteur bi et cetera da nga da nga boole ñaar fukki usine ñoom ñoom ñu doog laa indil nga doog a mën a boole pour defar benn oto kon lan la ñu war a def noonu nan fexee defar oto dèjà loolu dina wàññi lu bëree bëri ci semence su xale yi nga jógee fa dem ci yeneen matériel technologie nga xam dañ ko soxla mhm. télé yi et yooyu rek buñ ci jógee balaa yàgg ñëpp dañuy am lu ñu liggéey dëgg la te loolu ñi nekk bitim réew ñu ngi ci seen xel mu ngi ci seen i xel mhm. ndax ñun kenn ku ne si ñun fa ngay liggéey mhm. am nga fa expérience boo xam ne gis nga ne lii usine bii ma ne bu ne woon sama réew li ma xam ci xale yëpp daañu am fu ñu xëy dëgg la mais mais yow yaa ngi diaspora foofu ngay mais ci liste nationale bi fii lañ la dugal ndax da nga pare pour bu fekkee ni nekk nga député nga ñibbi si définitivement wala. non damay continuer fa parce que am na sama njaboot yu fa nekk sama njaboot a ngi fii waaye xam nga boo nekkee député moom. Hmm. amatoo frontière. man jàpp naa ne war naa mën a dem. ci diaspora des fois dañ leen di soxla fii ci biir. Euh, maa ngi ñëw ci loolu laa nekk moom bool yi boo xëyee 3 4 5 heures temps nga egg si fi yàggul. mais li parce que dafa am euh, député diaspora am député yi nekk fii ña nekk ca diaspora ba ak avantage yi ne am ak quota billet yeeg yooyu ndax da ngay pare pour ñëw fii wala nan nga ko nar a doxalee ak say fonds bopp wala. waaw xam nga euh, député man li ma jàpp mooy bu ñu la yóbbu assemblée nationale rek eh, soxlay Sénégal yëpp ci nga war a nekk ci par fànn bi ma mënee man ak possibilité bi ma am lii euh, problème mu diaspora bi dinaa ko jéem a xam expliquer ko ministère bi yor loolu waaye aussi problème mu dëkk bi. waaw ah, mais xam nga loolu aussi c'est pas mm. cohérent mm-hmm. parce que bu fekkee dañu indi député yoo xam ni ñoom ñooy doxal waa diaspora uniquement mm-hmm. ba ñu tuddee leen député de la diaspora mm-hmm. yow ñu def la fii ci biir Sénégal ce qui veut dire que ni da nga war a présent assemblée nationale toog fii parce que député fii yow fii nga féete man loolu laa jàpp voilà allez-y allez-y non tënkuma ko de temps en mën na di dem di ñëw d'accord naa parce que ci loolu lañ ko falee bu dee fal nañ ko mais dama ni dañu am député yoo xamante ni ñooy waa diaspora nekk loolu pour seet doon diaspora la rek. waaw je sais mais donc ñooñu ñooy xool euh, yi nga xamante ni mooy mbëbëtu waa jaspora di rendre compte fii. Mhm. noonu la wala. ndax xam nga député moom. waaw amoo frontière moom loolu moom nangu naa ci mbirum séddale bi lañ ne ñii ñooy député diaspora. mais ça veut dire pas ñoom rek ñoo war a. mais dañuy basé foofu ñoom. mën mën nga basé foofu mën ngay déplacé ñëw seet lan moo xew masalan député bi nga xam ne Italie la nekk wala mu nekk Allemagne wala fu mu mën a nekk mën na ñëw fi Sénégal dem ci gox bu mu yaakaar ne mën na fa lijjanti dara. dem xool la fay euh, li nga xam ne moom moo fay jafe-jafe doomu aadama yi wala lañ fa yor muy yàqu wala lañ fa war am te amu fa mm. mu ñëw assemblée xaar ba ki ko yor ñëw wala mu bind demande lii nan lañ koy lijjante. waaw mais bu fekkee ni bu député diaspora yi ñoom xam nga en général. Mhm. bu ay plénière ak yooyu amee ñu war a ñëw dañuy am quota ci seeni i am avantage yu muy àndal. Mhm. mais yow bu dee fii lañ la falee dinga am oto di nga am yeneen ak yeneen ak yeneen. Mhm. mais doo ma ne da koy gaare boo waree dem dem boo waree ñëw dagg ci sa euh, gafa bopp pour ñëw assister ci ay kii loolu fan foofu laay laajee. waaw man li ma metti tamit li ma xam yaakaar naa ne li may fi bu fekkee ne fii lañ ma fal te liñ fare yi may fayal fii rek la du tax ma yem fii parce que man dama nar dem Maroc dem euh, Libye mhm. dem Niger mhm. dem Tunisie ci boppam ak pays yi nga xam ne africain yi bëggoon tukki te àggaguñ ña nga fa dugg ci kaso yi xool ci lan la ñu nekk loolu léegi banque bi immigré yi doon laaj mbaa yéen a ngi ci yéen ngi ciy waxtaan fu mu toll loolu aw ma ci xam-xam bu bari ne aw ma ci xam-xam bu bari état bi waxoon na ko de. Hmm. pour ñi nga xamante ni immigré yi xam nga yàgg nañ ko laaj. su dee su dee amal na leen njariñ day baax na waaye man gis naa leneen lu leen amal njariñ loo xam ne. Euh, lu ci mel ni oto yi buñ ko mënta wàññi. waaw am na ku fi toogoon wax ko de. Hmm. suñu hmm. mënta wàññi aasu oto yi peut-être li leen ko tax a def ñoo ko xam man gis naa ne njariñ. li bariwul yokk wala wàññi. non maanaam yokk yokk at yi laa bëgg a wax jëlee ko 8 yóbbu ko 10 ans. sax. Ah, même 15 wala ñu ah, dindi définitivement loolu def ko def ko oto bu wér bu amee visite technique wala ñu def comme yeneen pays bu màggatee im basé ni màggatee nga fay taxe lu toll noonu ki gën a indi oto bu màggat gën a fay taxe waaye dama bëgg a wax ne su fekkee oto yooyu mënuñu ko mënuñu ko wàññi mm. mënuñu ko wàññi ñu may immigré yi oto yoo xam ne carte grise bi day différence ak auto normal nga xam ne képp ku am permis de conduire bu Sénégal am carte séjour bu biti réew mm-hmm. am nga benn oto bu ma nekk sa tur mm-hmm. doo ko jaay doo ko taxé sa soxla rek lay dox waaw El Malick gi waxoon na ci ci jamono jee bi muy wax ni ñu ngi koy euh, ñu ngi ñu ngi koy xool pour bu fekkee ni ñu xool ndax du am répercussion ci yeneen euh, oto yi wala indi bi ndax du du polluer wala dara mais defe naa ni ñoom aussi ñu ngi ci li gën sax mooy ñu dindi ko waaye dama ne su munta dañ maa ngi wax ci soxla immigré yi bu doon ci soxla Sénégal lépp laa dama naan nañ ko dindi waaye comme ci immigré yi nga ma laaj dama ne su fekkee mënuñu dindi âge bi nga xam ne huit ans lañ ko def te nga xam ne oto huit ans presque ñi ne foofu nga xam ne amuñ soxla yu toll ni ñu am ñun rek ñoo ko mën a jënd ñu may immigré bu nekk mu am benn oto ci ci sa séjour benn carte grise oto boo xam du ko jaay du taxi mu ñëwee soxlaam rek la ciy dox parce que Sénégal yaatu na te li ñuy am pour ñëw fi néew na ay fan te soxla euh, mbokk yi tasaaroo na mm-hmm. munoo am possi fi may wax ak yéen ni man oto laa loué way di dox samay soxla ba ba muy jeex te seer na lool c'est pas parce que dama koy wax parce que bëgg gi mais dama bëgg a wax rek ne bu ma amoon possible am oto boo xamante ne wala ñeneen comme man wala ñu defal ko ñëpp immigré yi bu ma ñëwee taal bu may dem gaare ko nga xam ne ah, bu policier bi taseeg moom keneen di ci taxi mm. moom da koy nangu ah. parce oto bi du pour taxi pour kenn nit la su fekkee gouvernement bi lii ñu def bu ko bu ko dindee da leen di indil seen koom wala accords yi mënuñ koo dindi ñu may immigré en attendant loolu loolu laa leen di ñaanal loolu tamit est-ce que du indi beneen problème parce que d'habitude immigré yi ngay gis yëpp bu ñu ñëwee Sénégal mën nañu toogaat deux ans trois ans gaare benn oto boo xamante ne nii at ya ngay def foofu noonu du daw nga gaare ko loolu tamit est-ce que nekkul ab pertement wala yàq oto bi mën nay marché <laughs> mais déggoo lu mu wax warul def wax ci kër gi lay nekk. waaw ah, xam nga kiñ may oto moom ne ko pour yow la <laughs> moom mooy xool ndax da koy gaare wala am na immigré boo xam ne 6 mois 3 mois yi ne mu ñëw fi. li ko defee nag bu ñuy bu ñuy at def mbir mi dañ koy def pour ñëpp ki mu mu teg 200 problème am la am na ko bu ko neexul mën na koo bañ a jënd. mais à part oto yi. Mhm. yan yan yan ngeen bëggoon jëw ñu taxaw ko waa diaspora yi seen i problème. li ci njëkk mooy ñu fexe ba suñ rakk yi di fekk foofu dañ vraiment ni xale yi demee metti nañu demin bi ñaaw na te presque ci àddina bi ñun rek la Sénégal mel noonu dafa mel ni dafa mel ni yeneen pays amuñu problème bu toll ni bi ñu am c'est vrai gaal yi am na yeneen étranger yu ciy dugg ah. waaye gaal yu bëri Sénégal la ñuy déparé yow mbuur mbuur nga jógee bien euh, lan pour yow lan moo xirtal ndaw ñi ci dem boobu surtout côté mbuur lan moo liggéey fa amatul géej gee doxatul lan moo xew parce que aussi dem boo xam ne risques yi ñu ëpp njariñ li mhm. pour man nit bu demee bay jug di dem war xool yoon wi mais lan moo xirtal ndaw ñi est-ce que du yéen ñi dem yéen def une publicité. boo xam ne ci diaspora bi. ci ngeen nag. ba ñëpp ci part de responsabilité. ba ñëpp di reere ñii. bu ñu ngeen daan ñëw di takk jàpp gelu jàmbur yi yéen ñii la nag. parce que da ngay gis un un rescapé boo xam ne dafa rë moom dafa moom dafa rëcc. kenn mënut a jamaale dafa rëcc ñu jox ñu jox ko hmm. micro. kàddoom bu njëkk mooy bu ma gisoon gaal demaat léegi. waaw loolu pour yow lan moo waral. waaw li may njëkk a tontu rek mooy ndax ñun ñoo waral loolu man li ma jàpp ne moo waral xale yi dem ci géej gi. Hmm. xale yi demewuñu ak saret te gaal yaa ngi fi woon bi ñu commencé am GP yi mooy euh, machine localisation yi nga xam ne nappkat yi ñoo ko daan yor dem jàpp jën euh, identifier lieu bi bu subaa ñu demaat fa. bi ko gaal yi commencé am ba xam fan lañ toll ak xam fu àddina bi toll ñi njëkk a dem ci GP yooyu lañ jël doog a jëm Île de Canaries. Ah. Hmm. parce que bi Europe bi Italie yi góndi wala bi euh, Moodu Moodu di gónde dëgg. Mm-hmm. booba ñëpp bëggoon na waaye gaal yi demuñu woon ndax gaal bu demee ñenn ñenn ci gaal gi ñoo xam fan la ñuy toll ak nan la ñuy def ba dellusiwaat ci dëkk bi. Mm-hmm. waaye machine boobu mool yi yoroon di xam fan lañu toll gis mën a gis ne ñoom bu ñu dawee ay fan mën nañu yegg fi te Europe la leen jëmee ci loolu la commencé. Mm-hmm. léegi nag mu des lan moo tax xale yi da ngay gis comme ni ñu ko waxee bu dellusee sax boo ko joxaatee paas mu dem. Euh, man li ma jàpp mooy ki nga xam ne moo jóg bay dem dafa am problème bu gën bu gën a séré géej gi parce que ñu ci bëri nag dégg nañ baa ñu gis ku dee te teewul bu ñu leen di bàyyi rek ñu dem problème boobu mooy. am ñoo xam sax micro lañ leen di tànn ñu ne. bu ñu gisaatoon tey demaat. da du da ngay juddu fii ba am 18 ans. Hmm. doo am benn yaakaar ci sa ci sa ci sa dund gi. sa soxla yi taxaw ci sa kanam mais gisoo fenn fooy xëy ba am liggéey boo demee buutal ko sa bopp it li ngay gañee dafa tuuti. da ngay xëy di góorgóorlu pour nga am 5000 francs problème la te nit ku normal fii ci Afrique wala Sénégal 5000 francs mën na ko lekk ci 24 heures mooy courant am fi muy tëdd fi muy lekk te mu gagné sax problème la wala nga gis ku yor salaire di ko di ko ko ba weer wi dee liñ ko fay 25 jours la ko mën a dund te pour mu am ko 30 jours day liggéey ça veut dire que day jafe-jafe yooyu bokk na ci li nga xam ne mooy forcer nit ñi ñu dem. léegi nag nguur gi def fi juróom-benn weer ñu bari dana woon bu ñëwee. xale yi yaakaar dina dellu si pour ñu toog waaye ba tey xale yi ñu ngi dem am ñu ne liñ digoon ndaw ñi leen mënul contexte boobu ngeen war ci dem élection. demeewul noonu. Hmm. danoo dig ñëpp waaye lu ci ne dañ dañ am na ci togg yoo xam ne foog mu yàgg am na ci loo xam ne ñu ngi ci commencé gu ndaw ñi nag euh, seen seen seen problème benn rek la mooy ñàkk am liggéey. Hmm. ñàkk am liggéey foog nga. luqati alal ji ñu yàq ba pare régler alal ji fi nekk euh, ba alal ji teew nga jéem nag nan ngay ubbee ay bunt pour am liggéey ubbi bunt ci am liggéey ci càmm gi ci napp gi ci mbay mi ci ci ci ouvrier bi ak ci ubbi ay usine surtout ubbi ay usine euh, peut-être gouvernement bi bientôt bu jógee ci lii nga xam ne mooy première pas bi tey maa ngi dégg benn waaye naan ba léegi xaalis yi ñu luubal lañ leen waxagum lañ leen waxagum kon des na yeneen yoo xam ne du xaalis ak leneen ak leneen suñu suñu lijjantee loolu mën naa am duñ xaar ba lijjanti loolu waaye ndànk-ndànk ci la ñuy dem ba lijjanti waale soxlay xale yi hmm. soxla bi nga xam ne moom lañ lijjanti woon xale yu njëkk ya nga xam ne dañu dem ñëw ñu defal leen Ablaye Wade defal leen benn kii ñu jël xaalis ba ñu ko jëlee dañu delluwaat hmm. kon jox leen xaalis du solution man li ma gis mooy gouvernement bi fexe ñi am alal ñu xiir leen ci ñuy ubbi ay usine ubbi ay ah, usine moom pexe la moom. waaw bu ñu ubbee ay usine rek usine gaaw na lool ci jël ay nit. sëriñ buuba nga ci doon loolu. am na ay kii yu mu ci ah. industrialisation bi. parce que fii moom gars yi ni ñuy uti alal mooy ay immeuble lañ tabax di ko loué. Mm, te loolu doo ci jariñ lu bari yow rek yaa ciy jariñ. tabaxal loué. Ah. dëgg la euh, usine boobu ñuy wax ci Kaolack euh, man gis naa ne la ko taxoon a tëj moo ko moo ko nar a tax continuer tëj ba léegi. Mm. Euh, parce que tiis yi dafa nekk loo xam ne amatul amatul valeur nam amee woon ci marché yi bëri na loolu Europe Chine waaye ñooñu ko asiatique yi ñooñu ko dàq defar boo demee Turquie la même chose soo jëlee benn usine boo taxawal Kaolack ne tissu lay defar li ñu lay njëkk laaj mooy matière première bi fan nga koy jëlee Kaolack liggéeyuñu coton amuñu ko amuñu ay amuñu ay produit pétrole yuy liggéey lin bañ ñu mën a defar tiges yi nga xam ne lin la ak yu mel noonu. Mhm. léegi lan ngay def mooy jëli ji jëli ko bitim réew. andi ko ci conteneur mais wax nañ ci aussi tamit ñoom bi ñu ñëwee. àndoon nañu ak ministre bi yore wàllu mbay mu wax ne war nañ mën a bay fii. coton bi def li doon mhm. nañ ex yooyu lépp expliqué nañ ko. Mhm. li ngay wax li Ah, waaw bu fekkee bu fekkee matière bu fekkee matière première bi daal fi usine bi nekk taxaw mën nañ fexe ba am coton bu koy liggéey mm. loolu dina am solo lool parce que usine bëree na waaye bu fekkee dañ koy jéggaani coton beeg lin bi doo ko ñëw defaree ko fi rek delluwaat jaayiwaat ko ci marché européen yi pour mbay ko lañ wax waaw dina baax mm-hmm. Mm-hmm. Euh, su ko defee usines yi may wax man mooy nit ñi seen bopp la ñu war a campagne pour ñu jàpp seen xel ne usine nekkul ba tërëyee doo ko doon usine mm-hmm. usine benn famille sax mën nañ ko am boo demee fu mel ni Napoli mm. ci Italie ñoom tamaate la ñuy bay Mhm. mais da ngay gis benn kër bu xaw a yor benn usine tomate dañuy bay euh, defar li ñu bay ba mu jeex ñu jënd li ñeneen bay defaraale ko di ko liggéey ay po di ko jaay mooy entreprise familiale entreprise familiale exactement loolu dégg naa moom Italie moom moo tax waaw mais yu mel noonu yéen ñii hmm. loolu ndax mënuñu ko def Sénégal yu mel noonu xam nga am ngeen gis ngeen lool waaw loolu mais yéen hmm. la plupart yéen jéemu leen a def investissement ci côté boobu. mais looloo gën a gaaw fii gis nga tamaate yu bari day yàqatu boo demee ci marché caare ñaan tojjit jaa ngi. dajale tojjit tamaate yi di ko di ko jaay ah, di ko mbaxal. xam nga xam nga ah, ñaan saf naag lii na. pourtant modèle boobu est-ce que lu xalaatu leen loolu yéen. seeru Gris Bordeaux bi ñëwee wax na ko fi. yow ñëwaat nga wax ko pourquoi mënul am Sénégal pourtant loolu moo gën a gaaw ci développé kii doxal yëf boobu ah. benn boobu benn la mais aussi damay gis loo xam ne ci Sénégal. Mm-hmm. Euh, maa ngi ñaan pourquoi mënul nekk fii lu ma balaa nga ñëw déglu maa ngi ñëw. parce que euh, boobu benn la dama ne waaye damay gis loo xam ne ci Sénégal maa ngi ñaan gouvernement mu bàyyi ci xel comme. mooy dafa bokk ci li mën a suqali réew ñi nga xam ne ñoo yor xarala yi bu ñu defaree dara ñu may leen possibilité ñu continuer di ko defar hmm. damay gis léeg-léeg ko defar benn machine mbay mais ah. doo dégg fan la mujj da koy photo filmer ko rek mu dem noonu ñu ah. mel noonu man dama jàpp ne waroon nañ leen ubbil benn fonds boo xamante ne jox leen lu ma 10 millions ne leen fii ak 5 du ngeen fay tax bi du ngeen ci fay dara dem leen ngeen liggéey jaay ko askan bi bu ñu ko defee mat

ñu ñuy def ay affaire yoo xamante ni bi affaire yu extraordinaire ay xale yaa ngi dégg yoo xamante ni bi danga leen di gis ñuy def mbir yi mais da ngay gis dañuy ñëw ci tele bi wane na leen mais kilifa yi ñoom ñoo war a xool ñooñu nu ñu leen encadré bu ñu demee ci banque bu ñu ah. demee ci banque bi bëgg fa xaalis banque bi du leen joxaay parce que ni banque bi ni muy joxee du ko changé mm. ñoom dañu war am seen banque bopp wala ñu jox possibilité képp koo xam ne xarala nga ba defar lu mën a jariñ xeet bi mm-hmm. daañu la lebal 10 millions yoo xam ne 5 ans doo ko fay si da mm. nga dem liggéey nag nga dem liggéey loolu di ko jaay naa benn booy bu nga xam ne xaw ma courant la defar xaw nee na kii yombi du lool du kii ci affaire bi Pape Sidi bi yooyu Pape Sidi Fall mm. eh, mais yooyu yu am solo mais yow da nga xaw a xereñ wala boog sa xamam màcc ci transport Mm-hmm. ñun moom transport. Mm-hmm. li naan Cheikh Tidiane Dieng <laughs> kii ñoo problème ci Sénégal El Malick mm-hmm. tey ñun gis nga oto yi accident yi. léegi indi nañ fi teer ak BRT. teer bi bu tawee du daw. BRT bi moom moom danaan xajal leen ma ma jàll bu ma eggee ngeen doog a ñëw. du du solution ni nga ko xalaate woon. dina daw mais day bloqué ñeneen ñi. day bloqué ñeneen ñi léegi yow pour yow lan mooy solution. yow sa xam-xam dafay màcc. pour ñu régler problème transport Sénégal nguur gu ñëw jéem nga ci ba mhm. mais problème yi ba léegi dafay des. waaw ñaari ñaari da ngaa boole lépp transport bi nga yi nga tudd mooy yi ne ci biir dëkk bi lu mel ni BRT beeg. TER transport de masse waaw mais yi nga xam ne ñooy daw ci biir dëkk bi ñoom moo xam bagage yi la ñuy yóbbu wala nit ñi. Mhm. yooyu tamit euh, beneen côté la waaye li ma bëgg a wax rek mooy transport Sénégal moom. yi nga xam ne tubaabee ko fi comme lu mel ni TER bi ak BRT bi ni muy fonctionner waroon naa mën a a baax nii parce que ñi koy liggéey xamoon nañ ne fii day taw kon suñ la defalee la dara ba pare ñu ne dafa taw moo tax mu taxaw moom ay luqu njuran ci yoo xam ne waaw mais ñi koy defar ñoom nga ba bi aussi courant lay dawee ak ndox mi waaw mais ñi ko defar lu ñoo lekk xaalis ñi duñu ko defar de li ma xam daal mooy bu doon Europe la moom ñoom ñemu ñoo tontu ñi leen sant loolu ne dafa tooy moo tax. parce que dañu war nañoo calculer leen. ñuy defar de ñiy defarlu. fa problème bi ne problème bi nekkul ci ñiy defar. transport ci ñiy defar lu euh, transport bi ngay laaj te muy transport routier sécurité routier ak transport. Euh, euh, ci ci tali bi. Ah. loolu comme ni ma koy waxee toujours rek daf ci am mm, place yu bëri yu ñu koy xoolee bi ci njëkk mooy ci tali bi oto yi conducteurs yi. gouvernement bi war na ci jëlaat yeneen matukaay te yaakaar naa ni El dina ko ci jël wax dëgg yàlla ni ma gis muy defee mel na ni bëgg na teg mbir mi ci siraatal mustaqim mm-hmm. waaye li ma ci xam rek mooy foog ñu jàngal chauffeur yi code ñu xam ko ba pare di ko appliquer xamuñu ko nag looloo beneen bi ci dem mooy oto yooyu ñu bàyyee ko ni ko ñi ko defaroon mm-hmm. bàyyee mm-hmm. bañ ci yokk dara bañ ci wàññi dara beneen bi ci ñu defaraat tali yi ba mu yaatu mais est-ce yow yaakaar nga ni pour jàngal chauffeur yi code loolu du yomb de parce li fi nekk nii moom mooy code ci ñoom de ñàkk a xam code mooy code code boo koy appliqué fii ñu faat la. mais ça dama ànd kii xamul ndax. non non non waaw rigueur bi ñu def ci Dakar dem dikk. non li mu wax déggoo ma Dakar dem di yooyu. ba doo ci tey bu ñu waxee ne wax ndax dugalaat seen bopp leneen lu dul. lii ñëw ndax dina yomb. waaw lii saa li muy wax dina yomb waaye da nga leen koy jox ci niñ ko xamee. code mm-hmm. de la comme butéel bi la mel ki ko defar tëju ko da cee bàyyi kubéer gi nga xam ne fii nga koy naanee. Mm-hmm. comme sénégalais olof lañ dégg dangay fexe ba jàngal leen code ci olof. Mm-hmm. mais bu leen forcer ci ñu jàng français wala arabe wala espagnol doog a mën a. mais code Sénégal xam nga chauffeur bu ne xam na ni oto bi bu signalé dafay jàdd. mais chauffeur bi ci ginnaawam bu ko waaj a tàllalut loxo. loxo la ñuy dawalee da koy mbëkk parce que il faut loxo bi bu ñëw faalewut signal boobu booy booy signalé dalay yaa daan kay dof dof lu rek yaa ngi dégg il mhm. faut que nga boole ci signalé génne loxo ne ko sëñ bi damay jekkee mu soog a taxaw ne ah da ngay dof dof lu rek donc euh, comme ni ko waxee kon donc ci ci ci ci yi ci ci oto bi waaye mhm. ci tali bi surtout Euh, li ma doon bëgg wax mooy boo demee ci autoroute mosoo gis autoroute bu am benn voie. Mhm. ñaar lay doon. Mhm. benn bi pour ñu di ci voyager nga jiitu ma topp sa kaw ñuy dem su ma naree doubler la beneen bi laay utiliser duble la te delluwaat. Mhm. liiru national yi dafa moom ñaari voie la am. bi may jël di dem ak ki may taseek hmm. waaye dafa war a am léeg-léeg beneen waa boo xam ne su ma la bëggee doubler comme gaawuloo li ngay daw ma mën ci jaar ñàkk waa boobu moom li fi xew ci accident ci fan yi mboolem oto yoo dégg ñu accidenté frontalement ñoom ñaar ñu tase ñàkk waa yooyu moo koy waral da ngay topp ci ne yàkkamti ba bi ngay doubler bagage yi jàmbur yi nga jël da ngay taseek moom maa ngi fàttaliku sama yoonu mbuur ba damaa génn oto bi te ëpp ma ko doole beneen oto di ñëw ma ne woy man yàpp <laughs> <laughs> ma ne père Nassim Sadio ah, ànd ah, ma ne wëy sa man day yàqu naa génn naa ko ba pare jàkkaarloo naa ko oto bële ëpp ma oto bii doole mënu ma koo mënu ma koo jogati yoonu mbuur bi xam nga seen tëli yooyu dafa xat ah. Hmm. c'est pas moo tax bàyyi naa. yoonu Sénégal yi moom yëpp a xat. Hmm, waaw booy daw ba paan sax doo hmm. doo booy ba paan sax doo mën a am foo taxaw. waaye aussi nag yenn saa yi ma romb oto yoo xam ne fiñ paan rek fa la ñuy taxaw. Mhm. te ñu war a xam ne kaw tali bi waa euh, bi ñu bàyyil ñiy daw ñiy daw rek moom ku dawatul bokkoo mhm. soo yoree véhicule ba mu paan na nga def tous les moyens tegg ko fi ñuy dawee pour nu musal ñiy daw nar la fa fekk macha allah jërëjëf waaw am na solo Baye Mor. Mhm. Baye Mor waaw am na solo. mais da ngay da ngay dellu le temps que campagne bi di commencé wala yaa ngi fi ba. campagne ba pare ba élection yi donc exactement kañ lay dellu xamaguma ko. Mhm. xaw may ndax sama candidature dina dinaa bokk ci sélectionné <laughs> mais lu mu ci mën a doon du changé sama position ci bëgg-bëgg bi ñu am ci réew mi ak ci parti bi. yàlla du changé dara ci nekkin bi ñu nekkee woon. Mhm. dañuy continuer di jàppale Pastef. ndax comme ni ma ko waxee moom lañ yaakaar ne jàmm ji ñu bëgg ci Sénégal ci moom rek la mën a jaare mhm. euh, waaye li nga xam ne moom la ñu bëgg bu ñu ko yàlla mayee ba ñu doon député incha allah comme ni nga ko foogee mhm. wala ni nga ko doon laajte noonu lay demee dañuy mhm. doon député boo xam ne bu nu ñëwee bay wax lépp luy soxlay Sénégal daañ jéem xam ko indil ko ñi ko war a faj tey ñaan yàlla ñoo ñu faj ko ndax loolu faj maa ngi nuyu yéen ñi toog ci plateau bi di leen jërëjëfal ci possibilité bi ngeen ma may nuyu Baye Assane Mesre mhm. waaye nuyu àddina yëpp Sénégal yi ne ci biir réew mi ñi nekk bitim réew mhm. rawatina patriote yu itali yu Bergamo di leen sant di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Baye Mor Sarr ah. honorable député <laughs> merci. <laughs> national ak international. <laughs> ñu lay ñaanal. waaw ah, bu dee gën na ci yow rek. yàlla na ko suñu borom def. kon ah, mu doonoon suñu gan bokk ca Pastef mm-hmm. euh, diaspora. ca Bergamo Italie ñu lay ñaanal jàmm mu kan ajarat kàddu gaa ngi noonu. ñu ngi koy remercier bu baax a baax Baye Mor Sarr ca disponibilité bi ñu dem jëli ak toujours. mi ngoog balaa ñuy ànd ak ma jigéen Diop ñu dalalaat ko nuyu ko moom Baye Assane Mesere Baye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay ajaratu bitim bu amaan mbégte am maan mbégte contentement si bokk ak yow plateau. naa bii ba tey ci série yi la. waaw waaw bii ba tey si Demba ak kii la. d'accord sama xarit bi jaaji waaw. ñu ngi lay ñaanal jàmm di la nuyu di nuyu El Hadj San Diop Amar Ban Xattaab maa jigéen. Mhm. waaye di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel bu baax a baax di wax ni. tey jii nag son bu daa génn waaye bàyyi na fi mu muudu xam naa bu tegee rek lu mu teg ñu xam ne loolu la indi. yow nga nekk ci régie ba sànq ba léegi xamoo li nga lim <laughs> lu mu teg loolu la bu ma kii bu ajaratu nee ni mu jëli victime mu ñëwee lu mu indi ñu waxtaanee ko. la jigéen. waaw kenn mës lii kañ yaa ko wax yaa ko waxaat. ok foofu beneen ñu changé ko parce que day saboté quoi <laughs> lu indi ñu xam ne lii la kon ñun fi mu dañoo basé daal ci moom. Ah, ah eh mais dégg naa ni moom deful dara son bu la. <laughs> ay waaw ajaratu uh-huh. maa ngi la koy wax sànq rek bi may nuyoo fi ñu toll nii convocation yi daal ñu ngi commencé di uh, bëri ndànk-ndànk ndaxte sànq bu ñu sukkandikoo uh, ci page wu kii di ma uh, Madiambal Diagne fële ca ex x di ex Twitter moom nag Cheikh Yérim Seck dañu wax ne dañu koy déglu Euh, jamono ji sax boo moytuwul euh, ña nga ca euh, li tax nag ñu convoqué ko ba léegi nii kenn xamul lan la waaye ñu ngi njort ne nag chiffre yi nga xamante ne nii gars yi seen sortie bi ñu defoon ci fan yi ñu génn ñoom premier ministre bi ak ay ministre am looloo waral ñu daal di koy wóolu ñu daal di nemmeeku itam ba tey moom ci page am moom ma jambal gis yi tamit kii di euh, Bougane Gueye daane nee nañu nag euh, ci subaak léegi ñi ngi koy euh, wër police mais gisuñu ko dem nañ ci ay bureau këram mais euh, Bougane ba léegi daal kenn xamul fu mu nekk ndax dañ koy yóbbul ab convocation wala déet loolu daal peut-être euh, du ñàkk xëy na euh, daañu ko xam ci kanam moom Kader ajaratu jamono ji ñuy wax ak yéen defeere nañu ko ndaxte information yi mu yëkkati woon jëmale ko nag ci ñi nga xamante ne ni ñoom lañu gisoon seen gaal. mu daal di teer nit ña fa nekkoon nag daal di ñàkk seeni ay euh, bakkan moom nag am na kàddu yu mu ci yëkkati woon mba wax nag ay audio yoo xamante ni nii jot na ko euh, ginnaaw euh, bi ñu defee li ci wax daal fi ñu toll nii téye nañ ko moom jéegi jóob itam tey jii nii doon jàkkaarlook ñi nga xamante ne nii ñoo di waay yoon. jëm nag ci mbirum euh, détournement euh, ab xaalis bu ñu wax ne daal lu toll ci trente million la ñu gisul euh, du ñàkk ni nag yi moom itamit daañu ci am luñ ci gën a leer mais fi ñu toll nii daal Omar li ñu gën a nemmeeku daal mooy convocation wu Cheikh Yérim Seck ak kii di Bougane ngay Dany mi ñuy seet te gisaguñu ko. xam ne gars kuñ ci woo rek pour man yaa woolu sa bopp man li ma gëm. mooy Sonko ak bi ñuy doog a ñëw bu ñu daje woon ak opposition bu nànnitee bu muus jouer le tuuti pour man ñu bari dinañ mucc pour man nekk ñu woon ci logique gu ak temps bi nu mu xaaree après six mois jàppe quoi parce que ki mas kaso génn balaa muy dugal nit kaso da koy waajaat boo déggee ñu naan Macky dafa soxoroon ñu bari dañ doon wax na waa PDS dañ doon wax xamul kaso moo tax mu yéene ko ñëpp léegi nag ñii comme xamaguñu lu tax ñu leen doo mën a sori ci woote gi bu dee buggaan mu ni daa daw mu na am saag bi lay wër rek <laughs> wala wala xale bee tëj saag bi ñu wëri saag bi bu dee seex Yérim Seck la même chose nee na ragalul te gëm naa ni tamit ragalul comme woo ko la mu wax dina ko layal bu dee jeegi la même chose bu dee kader ñoo mu toogaloon ca plateau ba euh, sama jigéen day faatu dama koy tooñ ne ak moo ko waroon a dagg quoi mm-hmm. moo waroon dagg Kader pour mu repréciser lu mu doon wax. waaw mm-hmm. ah, parce que Kader li naan ab xob lu ko dugal ci pax génnewu ko fa Kader daa wax ba dugg ci pax ñu ngi ñaan nag mu génn ci léegi nag ku mu ne ci ñun li mu ci war a jàng rek mooy booy wax nga wax ci loo xam parce que wax sa xalaat mën nga ko def mais nga xool xalaat bi gën a jub boo xam ne tey jii boo koy wax di nga mën a protéger sa bopp bu la wooyee nga mën ko layal. parce que li jëm ci mbiri chiffres yi bu dee moo tax ñu woo leen li Sonko waxoon parce que Sonko dànkaafu na foofu kuñ képp ku weddi dan naan la weddi nga waaye loo fi teg boo indee dara même boo indi woon dara teg ko lu tax ngay dugal sa bopp dan naan la foo ko jëlee parce que document boobu warul nekk ci possession wu loxo ku ne même Cheikh Diba tey ministre des finances mi doon tudd tey wax na ci mais da wax ak réserve am fu mu ci yem fi sonk egg eggu ci kon lu technique la mais aussi lu confidentiel la léegi nag confidence sax mënut a am parce que Sonko wax na ko ci kaw mais pour man li Sonko teg tànkam dëgg ko moo ëpp li mu wax ñu bari naa ne Sonko dafa wax mais am na réserve ci lu bari parce que boo dégloo Fadilou Keïta ci dimanche bi ak grand jury Fadilou gën naa xuus ba am ci yu mu dugg am ñu koy tontu kon gars yi liñ fi fekk yëpp ci ay mbóot bu ko génne woon gëm naa ni baygon du deset ci dëkk bi. waaw. y a de choses yoo xam ne gars yi teg nañ seen tànk waxuñu ko. léegi nag lu tax le cas de Bougane dan yi man di ma interpellé. Hmm. ak seex Yérim Seck mooy mbir yi dafa génn kenn waxul ak ñoom kenn waxul ak ñoom kan la ñuy waxal Amadou Ba Amadou Ba nee na teg Cheikh kii nu mu tudd. Abdoulaye Daouda Diallo Abdoulaye Daouda Diallo ak Macky Sall ak keneen ki nu mu tudd. mu Moustapha Ba Moustapha Ba waay ñooñu lañ ci tudd du leen baaraam ñooñu am fullaay ba tey ji génnuñu seen avocat génnul mais nag bëgg a bëre du ma tax may bëre bëre jàmbur ban ma ci daan jël boo xam ne tey jii duma am fu mu ko waxee pour man li gënoon bu dee ni looloo tax mu woo ba léegi damay wax ak réserve ah li gënoon mooy bi mbir mi amee déjà man li ma njëkkul woon ànd ak Bougane Gueye mooy Sonko na day wax daaneelagul nga ni bu waxee mu tontu ko te xamul li muy wax. Mm. pour man ci côté communication waroon na mën a éviter lu mel noonu. beneen bu ci topp nga dindi ay waxam te tegoo fa dara te boo fa tegoon dara ñu laaj la li nga teg koo ko jëlee des fois maytu ak ragal du benn. des fois di nga maytu ba ñëpp foog ni da ngaa ragal fekk maytu gi ngay maytu mu mu gën ci yow. léegi nag ñoom ñëpp kuñ ci woo muy jéege kum ci mën si doon mag mu loolu di jooy moom moo xam la muy jooy parce que mbiri jéegi jéegee ñu ko yëgal mm-hmm. moo jékki-jékki rek génn di yuuxu dinañ ma woo dinañ ma woo dina woo moom moo xam lu jox ñu koy woo mm-hmm. mais man lenn rek laa àndul ci àddina parce que nit mun na bañ a mucc ci wooteeg yooyu parce que ñu ngi ci àddina ñu nekk ci loxoy yoon ñun gënuñu leen mais fexeel ba boo fa demee doo doon ku yaa tooñ d'accord maanaam na doon natt boo xam ne suñu borom moo la koy teg ñu ah, kii de dañ ko natt wala dañ ko tooñ mais nga wax loo xam ne moo la ci dugal tey jii boo dee ñu laaj la ay preuve mënoo ko génne ku mu ne ci ñoom war na ko maytul boppam maytul ko njabootam mais maytul ko ay nawleem mais wax pour wax rek tont pour tontu ba tey jii bul la wooyee doo ko mën a layal bu la wooyee doo xam foo koy waxee mm. loolu war nañ ko maytu ci géew politique bi te pour man ñu bari doon jàpp ni bu ñu demee ci kanam yoon da leen di def victime dañ ciy gagné politiquement mais mën nañ ci perte lu bari aussi waaw. d'accord mi mhm. ngi noonu Assane euh, sa waa ji de euh, moom euh, Bougane Gueye Dany nee nañu dem nañu biroom fekkuñu ko fa agent yi nag ci suba ak léegi daal ñu ngi bëgg a xam fu mu nekk daal nee nañ daal suba daal normalement war naa dem wuy ji. Hmm. waaw am na solo xam nga mbir mi moom. jàngat la rek ndax gouvernement bi dañoo def sorti te gouvernement bi laataa ñuy ñëw si euh, nguur gi xam nañ li xew xañ na nag teguñu si woon loxo waaye xam nañ li xew kon nag buñ ñëwee xool seen ay choix xool ay nit ñu jub choix wala lu mu doon rek baax ajaratu la ah <laughs> voilà kon bu ñëwee am seen gis-gis si ñenn ñi xool ba xam ne ñii kat ñu jub ñu jël fal leen am na ku bokkoon si régime bee ñu naa ko seex di Diba ñoom ñu xam kan mooy Cheikh doon liggéey doon liggéey si xaalis xam lan mooy xaalis xam nan la ñuy seeree xaalis nan la seer xaalis di génne ñu xool ne Cheikh mii kat ku jub la. te liggéey bi ñu ko liggéey bi ñu ko dénkoon mën na ko te ni mu ko doon defee ni la ñu jël ko renouveler waat seen confiance ci moom fal ko kooku nag kon boo jógee tey di yëkkati yenn kàddu yi jëmale ko ci moom war naa doon lu leer war nga si am ay preuve bu fekkee wax nañ ay chiffres it boo ñëwee seppi chiffres yooyee sànni war ngaa mën a jël yeneen chiffres nga wax ko ñun ñëpp ñu déggandoo ko nga ne chiffres yi nga xamante ni teg nañ ko de muy deux cent cinquante sept virgule trente amut mais deux cent 36 virgule cinquante looloo am su ko defee ñun ñuy déglu danañ xam ne kat. Assane ah. yaa ngi ci chiffre yi de man de man de laaluma Sonko. Assane yaa ngi ci chiffre non non. mais dama laalu ma chiffre Sonko laalu ma chiffre Bougane <laughs> laalu ma chiffre kenn. exemple wax ci chiffre. asad ak ci chiffre non dama ne dugg na. dugg ma de dugg ma dama ne bu kee bu kee waxee ay chiffres yow nga ñëw di weddi ay chiffres. bu ah. fekkee ni kee dani deux cent cinquante six virgule trente yow ñëwal ni deux cent vingt sept virgule cinquante mu am mais lee amut ñu mën a xam ñun ñëpp bu ko defee bu ñu la wooloo ñu xam ne yóbbaale nga ay preuve hmm. mais boo taxawee ni kii yooyu amut rek day xaw a doy waar te it ñii xaj na li ñu tegoon ñu ngi ko tiim xam nañu ko kon daal en tout cas ñi ci kii kenn beneen bi kii demee ni Cheikh Yérim it ndax boo yet ñu ngi liggéey liggéey yoo xamante ni xaj na am na solo amul solo <laughs> ah. booy yi nekk si internet bi ndax daanaka ñu ngi enkatal yoon mhm. kenn ku nekk li nga wax ñu ngi la koy daggal di la ko tegal nii la li xam naa boo àggee lii war nañ la koo laaj wala boo àggee reeralal si lii <laughs> ndax kii nga xam ne jàpp nañ ko kat muy sendaan benn kat seen dara basaani xum waaj. kat waaj ñu jàpp. nan ah Jérôme Bañ. ah Jérôme si na moom mu jàpp xam nga yaa ngi dégg Cheikh Yérim am na muy. <laughs> yow noo ko tuddee nii. lan loo wax noo tudd nga nii. day saboté nag. Sénégal la la. kon yéen di ngeen di daj. ngeen <laughs> tudd. sérom. sérom ah, sérom moomu. waaw. xam nga ne buñ ko jàppee nekk si wàllum yoon di enquête yow nga ne xam nga ku ko jaay nga naay ku bokk si nangam ak nangam loolu da nga indi sa bopp problème eh, yooyu da nga see war a maandu bàyyi yoon def liggéeyam loolu téewul nga doon daanaan téewul nga doon ponkal xam jii boo nee xam naa moom gi nga yow woo ko ñu ko kan nga xam ko jaay nga naay da indi sa bopp problème wala nga indiwaat ay yenn détails bu ñu jàppee nit ki da koy ñaanal te bàyyi waaye boo naan kooku ñu jàpp te xam naa nangam wala nga naan kii nangam en tout cas daal fii war a jëmale réew mi mooy preuve dana metti nag mais loolu nga xam ne Ousmane Sonko wax na ko grand théâtre ba ma ne ko woon mënuñu lu ñu wax andil ko preuve ay waxkat lañu. waaw <laughs> mënta ne ah waxoon naa ko ko. man nag damaa yaakaar daa wax noonu rek ba ndekete. ba mu ko waxee gaa yaa ngi si kaam lépp loo xamante ni wax nga ko te demeewul noonu ñun la ah yow de ñu ngi lay sant di la gërëm. Hmm. comme que lii nee nga amut lii moo am kaay wax ñu li am te yow doo ko yor kon nag euh, ñun ñu muñ rek te jéem a jubbantiku tey wax ne yaakaar naa wala ñuy préciser bañ xam ne kat kii di wax li mu wax toogul ci ay preuve mais yaakaaram lay wax. Euh, Kader de defeere nañ ko moom. waaw waaw defeere nañ ko ñu ngi koy ñaanal bu baax rek balaa yàgg bala ñu ko yóbbu sur sur trop. <laughs> mandat de dépôt ah non mandat de dépôt mën nañ la faa yóbbu fii ak suba ñu diglu la mais extradition six mois la ah, yàlla na bu ñu ko yóbbu foofu rek. waaw di joxoon ajaratu. ni loolooy xeeñ nag li information judiciaire boobu mooy ah, xeeñ. en cas doy na waa ajaratu. Euh, ñenn ñi nag ñi ngi xalaat ne euh, moom Cheikh Yérim Seck euh, dernière sortie bi mu def ak Maymuna nee nañ daal kàddu yam fa yëkkati bu ñu juumoon bokk na ci li tax ñu convoqué ko. ah waa nañ xaar ba xam rek hmm. xëy na buy wuy ji xëy na avocat am dana ko fa fekk wala dara ñu hmm. wax ñu lan moo xew mais daal euh, xam naa ni euh, boo toogee ci télé wala ci rajo wala dara di di wax ay propos man je crois que boo demee assumer moo gën loolu la mais des fois aussi keroog dañu toog ak Pape Ndiaye mu ne mën nga wax dara muy dëgg te amoo woon droit wax ko. Hmm. am na nu mu ko expliquer ci diffamation ci euh, diffusion de fausses nouvelles ak yooyu mais mën nga wax dara nit ki se sent diffamé mu mu ñu topp la ci rawatina nag ay autorité wax dëgg yàlla xam nga lii ñuy wax ni dafa sensible ci benn instant boo xamante ni sénégalais yi ñu ngi laaj ay question yoo xamante ni moom premier ministre génn na wax ci léegi nag bu fekkee ni yow mii amoo nekkoo ca famu ne nekkoo ca biir au cœur des affaires de l'État man pour man Euh, pour nga am yenn dossier vrai wala nga génn wax ci loo xamante ni làmmiñ du ko dindi pour démentir premier ministre loolu daf lay daf lay difficile trop parce que ñoom information yenuy am yow doo ko am donc lu ci waaye di wax rek euh, euh, da ngay jël sa courage à deux mains rek jàpp ni boo ci waxee waxoo lu ci dëgg mën nañ ci cee woo buñ la wooyee nag nga dem wuy ji mm. wax dëgg yàlla ki am fit toog ci tele ak rajo di wax mm. man pour man bu buñ la wooyee warul am problème waaw Kader nag ñu koy massawu. suñu frère la suñu xarit la. Mm. waaye man pour man boo taxawee di joxe ay affirmation buñ la woowee même boo joxee preuve li ma la wax noonu daf ci am yoo xam ni même bu la wóoree ni lii la. Mm. amoo droit pour divulguer ko publiquement. voilà mm. yal na ko yàlla génne fi mu boo bu desee nga mosal ma si bugg a am ci tuuti rek ndax dama see. Eh. waaw kii jox ko ma. non ñëwal ñëwal hmm? ñëwal hmm. ñëwal. waaw loolu ma wax bu fekkee ma jàmbale ko wax loolu du lu wér amul <laughs> amul maa ko wax bugaan du daw. bugaan dawut. di ah, de sànq. Hmm? ñu ngi koy wër ay côté ñu ngi koy wër loolu amul loolu amul loolu la ma jàmbal yoon yoon lim la wax. bu fekkee da ngaa bind boo bindee convocation boo demee kër bugaan fekk ko ko fa jox ko visite bi nga dem sa yoon luñ siy wër. ku lay defal accusé bi. ma jàmba loolu wax amul. décharge bi ku koy def. décharge ki jël moo koy convocation doo ko batale. batale waaw. convocation tey jii boo ñëwoon fii. bunt bi boo boo fekkee gardien bi. <laughs> ana diw ñu ni daal. <laughs> yaa ko yore téye ko. d'accord. wax na dëgg de bu ko joxe. waaw alaaji daanaka rek li ñu wax rek ma jambal daanaka tey moo yëgal nit ñi ñaari convocation yooyu ñoom ci Bougane ak Cheikh Yérim Seck ñu wax itam jéegi tamit ma nga ca woon ca yoon kii di kadeer itam daal nañ koy defeere mu mel ni naal affaire yi commencé na di jéggi ah, dayo waa xam nga réew mi euh, dafa am ñoo xam ne dañoo defe ni réew mi ci fo lañ nekk maanaam dañuy fo maanaam waa non bi wallaahi am na ñoo xam ni jàpp nañ ni maanaam ci caaxaan lañ ne quoi lu leen neex mën nañ koo wax ak nu leen neexee maanaam lu leen neex yow ay nit jot ci réew di saytu six mois après ñu génn def seen bilan wax ñi ñu waxal kenn tontuwut mhm. benn waaye toog fële ne du dëgg dara amu ci mais loolu ku ko bu bu ko bu ko bu seetaanee mu jàll jeex na réew mi day pëccëxoo de mhm. ñi ne dara amu ci faw ñu wax fan lañ teg li nga xamante ni bi moom la ñii doon càmbar pendant six mois six mois xam nga problème mu Sénégal lan la maanaam dañ fee nekkoon moo tax ñu bari mën nañu am jafe-jafe ak yoon de c'est parce que dañoo demoon ba mujj gi li fi nekkoon di dox mënatuñ ko woon a tuddee li nga xamante ni bi mooy yoon maanaam dañu politiser woon yëfi mais yoon buñ ci roccee politique bi ñu bari ñi ngi ci ay tappale yoo xam ni ak nuñ daan doxee nu leen neex yoo xamante ni bii yoon nangu ko de règle yooyu nag diw dal moo waral lii parce que da daan toog man am naa ginnaaw am naa ñu ma xam am naa lii ak lii am naa ay relation ma mën a taxaw jàkkaarloog di ñépp wax loo xam ni dara du ci dëkk mais kenn du ma déglu fooy dem di ma déglu c'est parce que maa ngi jariñ benn homme politique mais loolu bu rocceekoo ñu seetaan yoon donc liggéey liggéeyam mais dafa am yu bari yoo xam ne ñii ñu woo ñépp umpale woo leen ni war na warees na leen a déglu xam nga bu njëkk ba dañ daan woo nit ñu naan lan lañ ko woowee maanaam wala yoo woon yoon wala ba pare di wër naan lu mu la war a woowe mm-hmm. xam nga loolu kon moo lay wan ne la mbirum kii lañ ci dugaloon. Hmm. mais rocc nañ yooyu yëpp. bërki démb lañ dem ca jam ñaaja tabb ministre boo xamante ni bi ki changé waat yëf yi fexe jël ñoo xamante ni bii danañ teg yëf yi ci siraatal mustaqim Ousmane ko wax lu leer nag ku mu àndal ak ku mu àndalut hmm. lépp lu waaye di wax. na ko xam na nga ko xam. Hmm. tey jii ma nga ne maa ngi ànd ak Ousmane Sonko rek bëgg a toog tamit di waxal nit ñi naka sudut noonu yoon da lay woode waaw yaa ngi dégg parce que yoon mooy nekk di dox nit ñi ñoo war a comporté waat xam ni la woon won ni na gis nga ku xamut ni la woon woon ni na wóor na yàlla fële nga jëm parce que la woon woon ni na il faut que nit ñi ci seen jëmmi bopp euh, gën a respecter nit ñi ay kilifa mënuñoo toog càmbar ba tàmbar ba noppi yow avant ñuy wax sax toog nga ne <laughs> da ngay wax après. yow ñii ñëw nañ wax nañ loo xamante ni bii sa ñañ newu ci. waaye laa jëm yaa toog ne liñ wax yëpp du dëgg. ba noppi nag yaa toog fii ne borom ne ni télém bi seen auditeur yàlla lii la donc. c'est waaw léegi yoon tamit dafa am nu muy doxee léegi dañ jaar ci ligne éditoriale ba yoon moom dafa am nu muy doxee yoon laa lax de man lëla laax man dama ne man du ma leen critiquer ñoom ñoo jël seen yin yooyu caareyal yoolu bu leen ca yoon fekkee mbirum yoon la man nag yoruma yoon man maay borom yoon yoon daf fi nekk pour ñun ñëpp léegi bu fekkente ni nit wax na dara parce que tey jii yow nag ngay amee télé am kii ñu bindal la léegi ne daw nga doo génn sa télé ne daw ginnaaw fu ko waxee mën ngaa wax. te wet waxi ma jàmbal ma jàmbal doo génn ne dawu ma doo weddi ma jàmbal bu dee dawoo. nañ surveiller front non daw na la bind wala dafa bind ne gisuñu ko. ñi koy wër koy wër. moom du génn ne maa ngi nii. gisuñu ko mu jàpp nag. Eh, jéegi mi ngi nii dañ na woon dafa daw. waaw te jéegi nee na fàng wane boppam. ndaw si sax génn na ne maa ngi nii. daa def vidéo ni maa ngi nii sama eh? toog sëñ Babacar. te yow nga yoroon sab saag daal di wax ne saag bi nii ak naa xam nga. nañu waxante dëgg am na yoo xamante ni. réew mi daal far ku tooñ de. bu neexee toog sëñ Mbacke soxna loo bi mu def vidéo léegi. kii nee nañu Bougane def na poste ci euh, convocation Yirim la wax mais waxul ci bosam yaa une heure de temps. Bougane posté na waaw wax na ci bosam mais mais ah, waxul ci waxul ci bosam ci convocation yërim la wax waaw xam naa en tout cas daal mais est-ce que réellement convoqué nañ ko mi ngi wër fépp ay ah, yaa ni waxuma ma jàmbale ñax ñaar yëpp ñaar yëpp ma jàmbale ko joxe de moom ko joxe d'accord en tout cas daal li li li am solo mooy mhm. nañ xam ni sénégal yëpp nañ xam ni réew mi soppeeku na mhm. caaxaan moom wax dëgg fa yàlla amu fi état nag bu ñëwee ne la état bu ñëwee ne la jub jub jubal jubbanti. Mm-hmm. da war a xool mi nga xam noonu nga war a doxee parce que boo dox xoolut ni nga war a doxee. bu dalee sa kaw poste bu baa ngi nii. nee na Cheikh Yérim Seck Diégui Diop est cadre de Sen TV en prison entre guillemets parce qu'il s'oppose entre guillemets. parce qu'il s'oppose à Ousmane Sonko. opposé on nous parle de liberté waaw xaaral lu la rek. <laughs> de liberté d'expression au Sénégal. mais depuis l'arrivée déglu rek depuis l'arrivée de Sonko. au pouvoir entre guillemets l'expression ne garantit plus la liberté. la justice ne doit pas être au service d'un parti politique et d'un ou d'un homme. mi ngi nii les menteurs sont libres mais ceux qui s'opposent passent à la trappe. non non jéegi lu ko yóbbu jéegi waxuñu ko mbirum xaalis ah. waaw loolu anam anam ana lu ci yoonu Sonko léegi ministère bi mu nekkoon ñoo ko porte plainte. ab ah, mbirum xaalis la. Hmm. neel benn Kader toogut fële di wax ba wax loo xamante ni bii moo ko. liggéey ñu ngi koy ñaanal téléchargement <coughs> du xam nga fu mu jël Kader di ko xeexee Kader na ay mbokkam doo am ful la. Hmm. génn na ñi ngi jéggalu. Hmm. yaa ngi dégg dafa juum eh, ay jabaram ak déglu ma déglu ma xanaa daa yëgagul ma ne soxnaam ah, eh, def ay soxnaam ma ngi koy taxaw ki ma ne ma ne ay ay soxnaam kadeer ay ah, soxna ah, non non dañ soxna yaa ñu ngi ay soxnaam nañu taxaw demander excuse mmh. jéggulu comprendre dafa juum Kader mais ñii buñ ko bëggee dañ koy bëgg a jël di ko xeexee bu mu nangu ñu koy xeexee comprendre nga bu mu nangu mukk ñu koy xeexee dañ lay enfoncé mmh. juum nga nangul ni juum nga. d'accord parce que ci sa biir émission nga def loo xamante ni da ngaa juum ah, nga bi biti di làkk français ma gis nga fipp lim làkk noonu. daa garaaw wala li ma wax. dafa dégg li ma wax <laughs> non non a politiser la naan na li cetera. kër ban liberté d'expression. ak dictature am benn dictature amu gis nga état bu fi a jaar nag noonu lay demee état buy soog a ñëw gars yi dañ duñ la respecté de. Hmm. Macky bi muy soo a ñëw fi ñoom kii nii wax jur na dañ ko ko doon wax. res dañ la dul ko quoi. Hmm. dañuy jàpp ni ñeme woo leen a këjën këjën donc il faut que yoon ñu bàyyi leen yoon def. li nga xam ne nañ nañ. nañ euh, tegu ci yoon rek. waaw fii ak suba rek daañu ci am lu gën a allah rabbi jox leen dig daje suba ak ji leen dig daje daanaka plateau bi nag. <laughs> merci beaucoup ma jigéen ah, Diop Dieng Sall li nga indi amati na ah, solo ñu ngi lay jaajëfal bu baax ñu ànd ak partenaire yi dellu xarit nii la cas c'est la méga fête Orange Money offre chaque jour des parures en or, des Jakarta, des enveloppes d'argent, des voitures et le plus, un très très grand appartement à remporter. Il vous suffit juste d'utiliser votre calpé Orange Money pour toutes vos opérations et vous aurez la chance de faire partie de nombreux gagnants tous les jours. War ko sa xarit mu war ko xaritam gagner chaque jour. Mën na Orange Money daal weesu na gën a wóor gën Orange seen boutique solution ci njiital alaaji Sanjoogu Mbeng ak Sohaybu Jóob ngir dëggal ak wéral ni suñu garabi cosaan yi lu wér la li waral seen boutique solution juddu ngir jële fi bépp xeetu caay-caay ci wàllu fajum cosaan ndax nit lekk alalam joxe ay garab yu wérul looloo waral ci diirum ñaari at yu manqué tuuti seen boutique solution di def ay résultats yu ama am solo biir réew mi ak bitum réew ci garab yii ñu leen di bëgg a limal ndoxum siit yi amuñu ci moroom hémorroïde bi nëbb ak bu feeñ góor gu néew kàttan ay garab yu wóor te efficace secondaire moytu leen garab yi ndox yi estomac dañ koy faj ba mu wér garabu asma bu efficace même boo amee woon asma bay piqué crise ñëwal fii ci boutique la solution bépp xale wala mag buy gént di tuur ndox ballottement tànk buy xar ba borom mënta sol ay ferme li jaaxal àddina bi yépp nag muy raay mu sedd bii ne ci boutique la solution lépp luy douleur ci yaram boo koy raay mes lay def am yeneen yeneeni mbir ci biir nag moo tax ñu naan ko raay mu sedd plus jaloore ak résultat yu la boutique solution di def tax na ñi ngi fépp ci bitim réew am na ca France États-Unis d'Amérique Canada Italie Espagne ca Gambie ca Angleterre Allemagne ñoo ngi en face Walfadjri ngeen mën a jot boutique la solution ci 78 426 66 77 wala 75 630 50 50 boutique bi xaatimul listixaarul seetul su ngeen bëggee dégg-dégg daal ba boutique la solution juddoo la jaay garab yi bon ak naxaate jeex. remercier suñuy partenaire euh, doore ko ci Sonatel mi nga xamante ni moo ñu indil Maxit Maxit nag euh, lépp loo xamante ni jëm na ci seen produit bu ngeen fa duggee te bu ngeen téléchargé application bi dugg fa di mën a def seen i euh, transaction ci Orange Money wala leneen ak leneen yoo xamante ni Orange indi nañ ko rawatina rentrée des bi nga xamante ni am na cadeau yu bari yoo xamante ni indil nañ leen ko dem leen ci Maxit buñ ca noppee boutique bi lee di solution mi ngi jàkkaarloog Walfadjri kenn dootu leen wax adresse bi mi ngi noonu lépp loo xamante ni garab la jëm ci impuissance sexuelle lu jëm également ci li nga xamante ni moo di hémorroïde dinañ leen ko jox ak yeneen garab yoo xam ne mi ngi ci ay garabu karaw ak yooyu ni ñu mel ñu ngi leen di remercier bu baax a baax ñu dem jëli victime du net. Baye loo indi. waaw li ma indi li Moodu indi. waaw kon laajal Modou. <laughs> waaw Modou li wax na ma ma envoyé na message mu ne ma la ak Balla Gaye 2 ndax ñoom kat euh, liñ gis si ñoom mosuñu ko gis si mag ak rakk. la si seen maanaam man entandi bu ñu am ak yàgg gi nga xamante ni yàgg na ko bañ ko amee ba léegi nii. Mm-hmm. avant màggal safar gi ba fi mu nekk nii ñu ngi ci ñoom ñaar si joxalante bi ak nit ñi ñu siy dugal kenn ku nekk am say nit kuy génn. di la kaasal ñii di kaasal saa kees naan moo ne si dëgg ñii di kaasal Balla Gaye naan moo nekk si dëgg ñii naan saa kees demal nga jégglu sa mag jëndal tàngal ñii naan Balla gay woo ko sa rakk la nga uuf ko coow loolu nag mi ngi si internet ni tulle ak màlle. lii yëpp Modou la ko wax. Hmm? lii yëpp moo ko wax Modou jox ñu élément bi ñu xool. ak noo koy gérer. non man coow li moom su ma néew ci wax dëgg yàlla bu ma taxee ak bu keneen taxawee su ma néew ci man famille jàmbur dama ciy neutre waaw gis nga famille jàmbur moom ku ci wax ku nekk rek man dama lay yërëm waaw nit da ngay da ngay honnête ci li nga doon mi man mi sama morom mii keneen ak keneen ku jote ak nit mii moom xaritam wala famille wala ku mu ci mën a doon neutre ci wala nga maan ci wala nga wax ci loo xamante ni rek mooy wax waaw man kanta yi ñuy wax ni moom franchement parler fokku ma déranger wu ma yóbbu ma fenn nag yóbbu ma fenn waaw li ma ci déglu li ma ci war a jëriñu rek laa jëriñu li ma ci war a jëriñu nag mooy loolu parce que man xale mun na maa nit ku wér di mun na maa tardé sulaar mun na maa tardé mais ci condition déglu mooy tax ma toog fi ñu waxtaan mais loolu dong la leneen ma problème ah ma kenn lu bon yéen ma kenn lu bon. Sa Thiès dafa am problème ak Balla Gaye 2 ñooñu loolu leen di wax. ak ñoom. yéen a bokk ku ci nekk ku ci wax. yaa ak sa ak sa ak ak mu mën a doon yàlla na juboo ngeen nekk ci jàmm. man lépp lu ma waay yéene man man Salif maanaam personnel lépp lu ma yéene nit yàlla na këpp sama kaw ci lu bon nag. ak lu ñaaw ak loo xamante ni du yëfu jullit lépp lu ma yéene nit yàlla na këpp sama kaw waaye képp ko wax ci man loo xam ne waroo koo wax baal naa la wax. dégg nga sa frère Baye am na communication bu mu defoon keroog noo ko dundee. aw ma lu ma ko dundee parce que moom laa nii bàyyi sama licence xaalisam la sama licence xaalisam la su ma xasee su ma saaga bu ma dóoree aw ma lu ma koy wax bàyyi bañ pare ci ëllëg sa la ma waroon nañoo gisee bi yàgg mais damaa mun dëj mais famille boobu sama famille mi euh, suma staff suma encadrement yi xam ñoo suma kilifa mi Pape Mama àndaw ak Moussa Fall man ñoom ñoo suma njiit ci lépp mun naa giñ ci yàlla képp ku taxaw di tagg naan man sama mag ak man a sama rak bis jot na am ngeen problème yaa xam nan def ba juboo ak moom yéen a xam fan ngeen def ba juboo ak moom te mun naa giñ ci yàlla ñoom ñu di wax ñëpp bu def fukk lañu juróom-ñett yëpp am nañu fa am nañu problème ñu war a réglé te réglé wuñu ko nañ ko réglé nag ndax doy na leen sëkk man sama problème maa koy réglé. amul problème oto yoonu internet néew ci famille yoonu internet néew ci actuellement su ma takkee ngeen wala Sathiès si jolli su ma takkul ngeen bu ma kenn ne Sathiès Salif laa tudd sant Sakho. Euh, ajaratu bitim buub nee na daal euh, Omar xuloo yoonu internet bi néew ci moom nag mën na si wax moom si internet bi mais ñeneen ñi buñ si wax internet. nee na xuloo ay nit yoonu internet néew si mais moom nag mi ngi koy lijjantee ci internet bi noo gisee coow moom moog Balla Gaye non dellusiwaatul ci xuloo bi. Hmm? Hmm? dellusiwaatul ci xuloo bi quoi ñëwul ci fond bi. waaw hmm. ah ñëwul ci fond bi te ni mu def nii baax na. parce que au début bi mbir mi jugee liiru jaan ñëw na sama xaw a ci teel laaj mais mu tontu ci tontu bu baax aussi mu ne affaire famille jàmbur la maandu yaa ngi gis pour man noonu mu ci doxalee noonu la ci ñu bari war a doxalee. waaw parce que boo gisee mu génn ci wax coole de dafa tàmbali yàgg. te nit ñi nanguñ ko jeexal du ñàkk ni génn wi pour jeexal ko la quoi pour wan leen ñi ci wax ñëpp am nañ seen problème ak seen biir famille te ñu wax ci quoi xam ne Sa Thiès man bu ma gisee sama xel day sori maa ngi fàttali bi ma njëkk a daje ak Doubalès boobu retraité na Sadio Jabaate kii xam naa ko mu doon def émission soose yi. oxygène di organiser da daan am programme bu mag chaque année ci rajo bi invité Double Less ci la ma njëkk wax Sa Thiès quoi wax ma lu bari si Sa Thiès nag euh, maanaam ku ko bëggu quoi wax ma ni Salif Guindo laa ko tuddee mooy Sa Thiès boobu sax commencé gul bëre na ma bàyyil ba mu naan ma benn interview bu ma defoon ak Double Less mu naan ma bàyyil ba mu ñëw bu ñëwee di nga xam ne kii quoi parce que bal laa ko doon laaj mu ne ma non am naa beneen doom bu tudd Sa Sa Thiès ak Balla pour man comme li mu wax bugguma ci dugg quoi lan la oto bi parce que ba affaire oto la woon ay maa moomu ko maa ko maye ceci mais boo déggee Sa di déglu Balla day am benn différence mooy Balla da ko mat ci at Sa mag ko ci xel ci côté communication waaw maanaam Balla Gaye moo mag ci at mais ci côté xel da ngay sentir ni Sa Thiès dafa am maturité bu dee wax da koy sentir day am réserve ci yu bari yenn détails yi du ci dugg léegi nag ñoom ñaar ni war a def mooy ànd Sa Thiès tam war a xam ni mën nga mag ñëpp mais doo mag sa mag te yàlla day dogal leen famille boo gis day am biddéew mais bala biddéew la parce que bu demee ba mun a nangul Sa Thiès même supporter Sa Thiès am na ñuy faral Sa Thiès parce que bala moo tax waa loolu ba Sa foog mu xam ko maanaam am na ñu ko bëgg bàll moo tax kon ñaar ñooñu kenn warul dox ci seen diggante. ñoo bokk supporter. waaw maanaam ñi mënta Sa Kër Massar la nekkoon xam naa ci dara tey bu demee ba jege ji géejawaay Balla Gaye joué na ci rôle bu am solo. kon nan ko rafetal. Mhm. mais aussi ñu ciy dugg aussi ñu génn ci li mu wax mooy am na lu mën a lijjanti seen biir famille. pourtant li ngay lijjanti ci diggante Sa Thiès ak Balla Gaye mi ngi sa biir famille pourtant yaa ngi teg sa tànk. Eh, suñu xalaat mu génn. <laughs> mais bëgg di non non waxuma ñun ñun. Ah, mais ñi xamu ci suuf ko hmm. ñi xamu ci suuf côté boobu. <laughs> ñu bàyyi ci xel bu baax te fonkante ñoom ñaar. Hmm. te xam ne teraanga mun na am ku ne ñëw. Hmm. mais am na foo xam ne bu fa nit tolloo da naan ana mbokk yi. ana te bis boobu lu jara sóor la. jara sóor la waaw wax na ba pare. Mhm. Balla Gaye na Omar moo du neen ñu may ko mu dugal. élément bi. la nekk euh, mu nekkee xale ba léegi ci man la nekk maa ko jël yar ko mu nekk sama biir kër ma dugal ko sama biir kër. Mhm. yar ko yar ko yar ko ba mu mot am soxna ma dugal ko ci kër gi. kon man saa kees suma rapport si oto bi ngay wax nii saa oto bu mujjee yor maa ko jël jox ko bu ko daal boobu ñuy wax noonu man fekk mu sama oto soxna moo ko yóbbu kon dafa am yoo xamante ne ay nit buy wax man dama ci basé wu ci yooyu waaye saa kees daal jàppal na sama rakk la yàlla dogal na teraanga laay sekk moom ak encadré ko ak jàppale ko xool lu carrière am di avancé waaye bu fekkee fu mu nekk sama biir kër la nekk koo nekk yar ko mu nekk xale ba am mun am soxna ba am ay doom nga jël ko yar ko ci biir kër gi yor leen yor doom yor suma yaay kon alhamdulilah maa ngi ñaan yàlla moom yàlla jàppale ba mu mun loolu loolu moom importance mooy Sa lépp li nga xamante ne jàppale rek Sa Thiès ñàkkul jàppale waaw am na solo boo gisee mu teg Balla Gaye teg Sa Thiès noonu te teguñu Balla Gaye day xaw a doy waar moo tax mu dugal Balla Gaye noonu mm. mais boo dee xool si biir yi wax ji am na fu Balla naan signature boobu indi coow li Balla nekk fi woon waaye oto soxnaam la jox saa kees pour mu dem sa signature ba. Euh, ñii nag naan nit ñi nag naan naan da doon jël taxi ak fu mu ne noo gisee nii. <laughs> waaw bu ma bu ma man xam man histoire bi daf maa rëcc hmm. doon naa ko. Ah, déglu li ma la wax euh, nag non du mag du ma basé ci li nga wax de. bàyyi ma ma wax sama xalaat. parce que saa su ma la laaj da nga naan ma bàyyi ma <laughs> ma wax sama xalaat kon doo du ma sukkandiku ci yow li ngay wax. <laughs> maa bëgg a dugal te du ma ko nangu ku mu sacrifier la bëgg mais gis-gis bi ma si am rek mooy ñoom ñaar dafa mel ni amuñu problème mais nit ñi ñoom ñoo bëgg a jël euh, euh, seen diggante bëgg ko def loo xamante ne nii pour xawma ay affaire buzz la xawma nu mu demee noonu te gis nga en général ñii ñëw di di def séparation seen diggante ñëpp foo leen gis ñi ngi affiché wu ak seeni famille di wane nit ñoom ñoo ngi ci jàmm léegi nag yow doo nekk si jàmm di wan nit ñi publiquement que ni yow ak sa ay mag ak say frère ak say mu mun xam munum xamanu moo ko tuddee noonu yéen a ngi ci am alors que nga bëgg a jël diggante boo xamante ne ñaar ñoo gis ay magal rek yaay ak papa ñëpp ñooy am problème ci seen biir mais na nañuy jéem a fexe comme ni ko Sathies waxee hmm. famille problème bu ci am mm-hmm. nañ ko régler ci seen biir mais yoonu jàmbur nekku ci parce que Sénégal moom moo bindoo noonu parfois da ngay gis ñoo xam ne dañuy yor seen kilo di lijjanti gen waa liibaru jàmbur baa xaaju gën waa liibar nañ leen bàyyi suñ leen bàyyee ñu waxtaan parce que li Balla Gaye wax ak li Sa Thiès wax koo ci wax mun la sama rakk la kii mu ne sama mag la kon nan moo tax nit ñi bëgg ko jël bëgg ko def problème site internet yi tamit war nañu bàyyi hmm. su ñu gisee benn pro ndollu rek hmm. dem en général nit ñuy bëgg bëgg xamb bëgg yóbbu coow li foo xamante ne hmm. nii àggu fa te matu ko nañ leen bàyyi ñu waxtaan ñoom ñaa ñoo bokk seen ndey ak seen baay seen papa dem na dëddu Balla gay moo war a mat yu nekk mag uuf ñëpp Sa Thiès bu jàddee mu ne ko waroo jàdd parce que mag moom mooy contrôler ay rakkam hmm. voilà am na solo euh, ajaratu noo déggee loo xamante ni nit ñaa ngi naan seen yoon nekku si lu ñu siy duggee te it ñooña ñoo nekk si pénc mi ñoom ñoo ñëw nekk si ñun ñun ñoom mbër yi ñoom ñoo ne ay mbër lañ nekk ci ñun ñi am problème ñu nit ñu koy xam di si wax par rapport ak ñoom ñeneen ñi nga xam ay yaayam ak doo dégg ñooñu kenn mais bu fekkoon ne Balla mbër la ñu ne am na rakkam ju muy nag mais ñaari mbër lañ nekk ci pénc mi est-ce que ñoom seen problème du problème mu sénégalais yi est-ce que sénégalais yi waruñu see wax. waaw sénégalais yi war nañ ci wax xam nga lu tax. Hmm. parce que ñoom ñaar ñëpp ay célébrité lañu. man li may li may naqar lu tuuti rek mooy eh, lii day wane ne waajur. Hmm. boo demee yàgg nañu am problème de. Hmm. yàgg nañ di werante walla dara. mais seen baay bi mu fi nekkee yii yëpp mosul génn. yëpp mosul génn ça veut dire que ni euh, seen papa yàlla na ko yàlla yërëm waajur des fois day baax ci fameem day baax ci njabootam euh, léegi nag Uh, man li mu wax noonu d'accord naa ci li tax li tax nga ne nee nañu yoonu internet nekk ci te internet mu ngi ci ah, ñi leen jële ko dugal ci internet bi wax nañu dëgg juste rek pour dire uh, Balla li mu wax wax ju rafet la wax Mm. parce que nag nit boo ko magee danga koy magee dara. Mm. man xaw ma problème am na xaw ma problème amul wax dëgg yàlla waaye nag lu mu ci mënti doon nañ ko régler ci biir. doguma ko defal noonu. Euh, ndax ki koy interviewé. moo wax ba tudd oto bi. Mm. mu ne ko oto boobu nga tudd moom daf ci dafa répondre rek mais bon lu mu ci mënti doon. gis nga mag ak rak mbokk. diggante cousin cousin ay cousin wak yooyu teraanga ju bari mën na cee ndox mais dama bëgg ñu xam ne bëñ ak làmmiñ ñoo dëkk des fois say waajur yi nga nekkal sax dañ lay def lu la naqari. Mm. te da koy muñ. mais bu dee ay mag ak rakk wala yooyu noonu peut-être coow mën na am mm. même bu génnee war na ba mën na bañ a génn am na ñeneen ñoo xam ne seeni coow day génn mais après dañ koy régler. Mm. donc li mu bëgg wax xam naa ni mooy rek. sama mag la bokk ndey ak baay même bu ñu doon tegante paaka sax après dañ ciy dañu retrouver wu. kon nañ ko nañ ko defar xool ni seen papa nekkatu fi. ñu ñu oyofal ko seen waajur bu jigéen man daal je crois que loolu moo gën bu dee problème am na. am na solo hélas bu dee problème am na xam naa si ñetti point rek si ñetti point rek hélas ah hélas. waaw ma ne ko si ñetti point rek benn bi mooy. sa point yi sama néew. man point yi. man point yi laa lay wax da wax si point yi ni ma lay wax nag. say point boobu du ma ci wax. man xanaa laajuma léegi xanaa ah, laajatuma. Euh, mooy ñi nga xam ne dañu ñëw dénk leen micro. ñoom dañuy jël mi xëcc micro bi gën a wax naan seen yoon nekku te duñ dàq waa ji leen di laaj. Hmm. te lu mu leen laaj dañ say toon benn beneen bi. Euh, sénégalais yi ñu naan nañ si génn ñaar ñi ay mag ak rakk lañ est-ce que sénégalais yi war nañ cee génn ndax ñoom dañuy ñaar ñu siiw loolu la euh, ba sa des sax euh, ruube na ma ba fàtte ko te bu amoon solo la nag ah, ah demal waaw bande li ma doon njëkk xalaat bi ma njëkkee dégg kii bi dama xool ma ne Sa Thiès Balla am nañ jafe-jafe mm-hmm. Sa Thiès Balla Gaye euh, empereur la mooy seen trophée familial boobu Aziz créé ma ne est-ce que du dañu bëgg jox Sa Thiès empereur bi mais ñu créer benn coow parce que promoteur yi bay businessman lañ mm. créer benn coow boo xamante ni bu coow di jógee ba sénégalais yi ne ah diggante Sa Thiès ak Balla Gaye ñii féete fii ñee féete fële mm-hmm. làmb boole leen mais ci ak déggoo loo xam ni pour manipuler waale askan wi parce que amoon nañ ko ci lac de mënoon naa nekk mais après dafa lool <laughs> comprendre nga mm-hmm. c'est que boo est-ce Balla du dafa bëgg jaaree foofu kii mais nga xam ni après Aziz dina mën a contourner mut loo pour amaat Sa Thiès pour mu bëree lool. donc loolu ay xalaat la woon yoo xamante am nañ ko mais daal li am solo mooy jafe am na ci seen diggante man bon dama nekk ci famille boo xam ni mag-mag la. rakk-rakk la. rakk mënul am raison ci mag. même bu amee raison amul raison loolu mooy li nga xamante ni bi ci lañ ñu yar hmm. te defe naa ni mooy dox ci suñu këru kilifa yeeg yëpp loolu mooy li dox maanaam loolu mooy mbirum Sénégal hmm. donc Sa Thiès ak lu ko nit mën a wax mooy na dem euh, jéggal magam te xam ni magam la hmm. fi toll nii mooy taxaw ci wetam taxawaayu baay ñii nag di ko tàllal micro yooyu mm-hmm. genn wàll gi yëpp liñ lay wax loo bugguñu lu dul lu ñu dundee mm-hmm. maanaam problème bi dañuy ñëw bugguñu mu fay mm-hmm. te balaa nga ko doon xam nga juum ci wax ji ba wax lu ëpp duñ ko dagg dañuy daw tegi ko te loolu la ñuy tiitree Balla magam la ak nu Balla mën a mel kilifaam la comprendre Balla warta jóg dem di baalu ji Sa bu dee Sa loolu lay xaar bu yóbbu mu xam loolu bu ko Balla defoon sax. dana xam ni lii baaxut ci moom te warut. Mm-hmm. moom moo war a def li nga xam ni moom la war a def jeexal yëfi képp koo xam ne dafa nekk ci ginnaawam naan ko fi nga jàpp foofu la yaa nekk ci dëgg na ko jàppee ne diw mi saytaane la. dafa am ay xaritam yoo dañuy def ay sorti naan non Balla moo war a xam ne. non non non képp ku koy def noonu. Mm-hmm. na xam ni kii seytaane la. bu mu déglu ñooñu man de du ma xaar samay mag di ma tuubal même bu ma tooñoo bu ma samay mag tooñoon mu leer ma ne ma ñoo ma tooñ it danaa dem ci ñoom jéggul parce que loolu mooy dëgg loolu mooy dëgg quoi waaw mag moom mag la quoi na rakk topp mag mag yërëm rakk jeex na takk xam nga dafa tudd Baye Ndiaye Baye Ndiaye. daf na Aziz sama papa la. waaw mooy sama xalifa. mooy moom exemple mooy sama lépp maanaam moom. ni Baye Ndiaye nangulee Aziz. waaw kay loolu la war a xool foofu rek. parce que Baye fu mu egg Aziz moo fa eggale te loolu li ko indil mooy nangul magam jégal ko. amul leneen li saa wax la rek dafa tëj wax rakk topp mag mag yërëm rakk. jeex tàkk soxna nag tëjal. soxna déggal nga tëj. soxna déggal jëkkër. waaw mais jëkkër yërëm soxna. <laughs> kii nu mu yóbbu amee ni ma soxna xam nga kii débat bi nag. xam naa la xam nga sëy hmm. yi sëy nga génn ci bëri bëgg dugg ci sëy. Assane ma tëj émission bi dajal rubrique bi. <laughs> ah waaw baax na bëgg ah, <laughs> <laughs> ah, ñu dugg bëgg ñu ñu ngi sant ñëpp di leen ñu ngi sant doon seetaan ñëpp di leen gërëm di xam naa beneen yoon dañ dugg si sëy yi incha allah waxtaanee ak ci takk. xanaa loolu ay victime wala yow da ngay créer ay victime ayca Baye Assane Mesere ñu koy remercier toujours égal à lui-même waaye nag bu ñëwee nit ñi dañuy ree dañuy kaf waaye dañuy dégg également ñu ngi koy remercier bu baax a baax yàlla yàlla wéral la ñu jaajëfal leen yéen ñu nu bokkaloon plateau bii di nuyu nag ki nga xamante ni moo di bàyyi Diène borom Rufisque bàyyi Diène nag ma nga fële ci service de mines suma xarit xaritu Ibataal kooku nag mooy chéri Fatou Ndeye Fatou Gueye ak Sali Diallo ah, <laughs> ñu ngi koy nuyu ah, la Baye Diène train bi. waaw wallaay mooy le fisc de galon la. Ah, bu Ndeye Fatou Gueye ak Sali Diallo. fu mu njëkk aay ah, xaw ci dara. ñu ngi leen di jaajëfal bu baax du côté de la régie El Hadj Modou Diouf Abdou Top Ablaye Diallo Serigne Fallou Ndeya ñu ngi lay nuyu en passant di nuyu nag waa solution yëpp ak waa Walfadjri jox leen daje euh, jeudi incha allah ci kattanu yàlla. boutique solution ñoo leen doon may seen émission Taku Show.